Euh, asalaamaaleykum beneen yoon ñu ñëw <clears throat> fas yéene waxtaan ak euh, sëriñ Cheikh Omar Diop ndey ci Faydu Baay bi ñu ñëw nag tey di wax li nga xam ne mooy say jaar-jaar sa jaar-jaar ci Faydu bi sa jaar-jaar en tant que muqaddam am na ay questions yoo xam ne dinañ la ko laaj mu jëm ci sa wàllum sa njàng fi nga jàngee. jëm ci li nga xam ne mooy muqaddam gi nga doon ci pay bi muqaddam ku ko wax wax lu jëm ci wàllum ijaasa ak euh, leneen ak leneen waaye baaxoo nan bala ñoo tàmbali dara ñu bàyyi nga nuyoo ko askan ngi xam ne ñoo lay seetaan a travers le monde bisimilah sëriñ bi alhamdulilah was wasalaamu ala rasulillah aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siraata almustaqima siraata allazina an'amta alayhim xayri almaghdubi alayhim wala ddaalin allahuma salli ala sayyidina muhammadin ilfaatihi lima uxliq walxaatimi lima sabaqa naasiri alxaq bilxaq walhaadi ila siraatika almustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaari alazim yaa himmata sayqi uhdurina bi hada almahdari wa taxtifi bi nasrati tati lana bi sam rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa di sant yàlla bu baax ci daje dajewaat ak yéen ci jotaay bii nga xam ne comme ni nga ko waxee laaj yi nga ma war a laaj euh, di ci kontaan bu baax ak di nuyu kilifa diine yi yëpp ak kilifa aada yi yëpp di nuyu mboolem réew mi ak waa bitim réew di nuyu mboolem taalibe bàyyi njabooti bàyyi gi muqaddami bàyyi yëpp bàyyiwuñu kenn fu waaye mën a nekk ak fu waaye njulit mën a ab njulit mën a nekk ci àddina bi fu doomu aadama mën a nekk ci àddina bi ñu ngi di la wax nuyu yóbbu lislaam te mooy asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di ñaan jàmm ci réew mi ak mboolem bitim réew réew njulit nekk ak doom njulit nekk yàlla dafa ko jàmm amin yaa rabbi ah, na yàlla nangu ñaan yëpp te yàlla boole si ñaan gi yëpp ñu bokk lépp te barke yonent bi waaw mooy ni ma ko waxee woon rek jaar-jaar ku ko wax surtout lu jëm ci kilifa diine waaw nga wax li nga xam ne moo ko booleeg diine moo ko booleeg tariixa bi moo ko booleeg faydu bi muqaddam na la xamee ci faydu baay bi euh, ñu bari ci ñi nga xam ne xamee nan la ci télé bi ak internet bi amaan na na am na beneen pàcc buñ la xamee muy wàllum pàcc mi ngay yëngu ñun ñi nga nekk nag xam nan li nga doon ci faydu bi waaye bu doon ñun dëgg nga bu ñun ci néeg wax ñu ko wala ñu ko toog su kër wax ñu ko waaye askan yi moo tax ñuy posé question yi ñi nga xam ne xamee woon la ci lu may ci paj mi à travers l'internet et la télévision maanaam suñ première pàcc ci waxtaan mooy ñetti question yi fan nga jàngee lan moo la dugal ci faydu ak sa wàllum ijaasa ndax sa ijaasa da nga ko am pare teg ko sa armoire wala nga toog ci ak sa ijaasa lan moo ko wéral lii bëggoon naa nga waxtaan ci askan wi mu leer nit ñi xam ñu nekk ci bitim réew ak ñu nekk ci biir réew mi ñu nekk ci faydu bi ak ñi nga xam ne say soppi lan te sax nekkuñ ci faydu bi bisimilah sëriñ bi. alhamdulilah laaj bi nga laaj am na solo macha allah ndax dafay tax nit ñi xam doomu aadama bi wax kana mhm. ak euh, lan la def mhm. ak mm, ndax am na mérite ci wax wala déet. alhamdulilah ñun suñu wayjur ñooñu mooy ñooñu jàngal man sama man sama jur wu góor moo ma jàngal wayjur wu góor woowu ba mu ñuy jàngal ca daara ja ca Ndofane la gën am naa sama mag bu ma bokkal ndey ak bàyyi ñu ñuy koy wax seex Tidiane Diop Cheikh Tidiane moomu nga xam ne mooy Cheikh Tidiane Diop di suñu taawu kër ba ñuy jàng ci daara ja sama wayjur di ñu jàngal léegoo léeg moom mu yor daara ja di ñu jàngal tey Cheikh Tidiane moomu tey ñoo nekk man ak moom ci sama liggéey bii may liggéey ci wàllu faj mi su ma fi nekkul moom mooy ut may remplacer nga xam nga ne leen yàlla wa anal fadla bi yadi llaahi yuuti man yashaa wallaahu sul fadlil aziim yàlla moom nga ne moo koy maye nga am tarak ngeen bokk ndey ak baay nga jàngal ko mboolem secret bu sa baay am nga am ko mboolem xam-xam bu mu jëlee sa baay mu nga jëlee ko ci moom waaye yow nga dox ba yàgg nga gis na kii yàlla def na ci moom ay ngëneel yu yoo xam ne xëy na yàlla def na ko ci yaw waaye nag moom nga ko ay ngëneel ba ba ànd ak moom te ngay seen taaw may ñeenteelu tofoom ma nekk tey keroog ba muy keroog ba may tudd sama doom mu ñëw sukk ay bëti moom ñëw sukk ci sama doom na ma jaayante naa ak yow man ma nekk sëriñam loolu yéen fekkee ngeen ko te moo ma jàngal te sama waajur wu moo ko jàngal mu jàngal ma donc kon sama baay moo ma maa ngi sant yàlla ci jàngal gi ma jàngal jàngal la ma alxuraan jàngal la xam-xam lu bari ci fànn ci xam-xam yi téere yu bari gaa yi jàng jàng naa ko waaye li ma bëgg nga ñu xam ci wàllu téere yi nga xam ne nag jàng naa ko ci kër baay kooku moom kër Cheikh Mama kër kër euh, sëñ Cheikh Mama ture Ndofane ñu koy Baye Modou Habib Touré moom moo jàngal téere yu bari ci téere bàyyi nga xam ne kooku Cheikh Omar Touré mu Baye mooy baayam mooy taawu Cheikh Omar Touré ndax Cheikh baax Cheikh Omar Touré bokkoon na ci xulafaaw xulafaaw arbaate yu Baye ndax bàyyi dañ doon wax ne yonent moom sallallahu alayhi wasallam am na Seydina Omar Seydina Aliyin Seydina Ousmane ak Seydina Babacar Baye. Seydina Omar am moomu nga xam ne mooy Cheikh Omar Touré tam mu doon nga nekkoon Ndoofaan te toxu woon fa dem Gàmbi taawam bu góor bu ñu wax seet pa mu ñuy wax Modou Habib Touré nga xam ne doomi bàyyi bëri Cheikh Omar Touré moomu jàngal na leen sama yaay bàyyi daal daan na ko ooyee sama jànqab laax bi ndax sam bàyyi saa yu ñëwaan Ndoofaan daf daan oo ne nañ ko indil sama yaay booba sama yaay tout tànk la daawul lekk laax kër Cheikh Omar kër pa Cheikh lu dul ne dañ dafa wax nañ ko oowal sama yaay mu ñëw pour ñu xam ñun faydu bi li ñu ci boole ak li ñu am ci faydu bi du loo xam ne daf ñëw dafa dafa daanu ci suñ kaw sa sa yaay sama yaay ku bàyyi bëggoon la mooy gone bàyyi bu ñëwaan foofu kër Cheikh Maam kër Cheikh Omar Touré la daan dal Cheikh Omar moom doomam li mu daal di daanaka téere bàyyi yu bari moom ko jàngal mm-hmm. eh, foofu laa jàngee gannaaw bi mu bàyyeekoo Ndofane ñëw Dakar ma ñëwee ndakaar simin ci laa duggee ci faydu ndax émission bi dafa laaj dafa am fu ñu jëm mhm. moo tax loolu dama koy gàttal rek ndax su ma ko waxee ñi xam faydu bi mhm. te nga xam ne ñoom dowut dañoo faraatu rek dañ leen a bambax wala faydu da leen a waaye ñu xam cosaanu faydu bi moom bu ñu déggee ku Cheikh Mamadou Touré mhm. ak ku Cheikh Mouhamadou Habib Touré danañ ko xam te Cheikh Mouhamadou Habib Touré moomu man sama baay moo ko jàngal siira moo tax ba may jàngal siira bàyyi daf ma doon wax ne yow maa ngi lay jàngal waaye yow sama sëriñ nga ndax sa baay moo ma jàngal siira ndax suñ baay boroom xam-xam loon boo xam ne yàlla daf ko mayoon waaye mu xaddamu Cheikh eh, suñu Ababacar Si la woon yàlla anhu ndax man ànda naa sama baay ba tàyyi Tiwaawoon di dem kër alaaji Tiwaawoon ak kër alaaji Abdou bu nit ñi daan rang ñun bu ñu ñëwee dañuy daan ubbil ca ginnaaw la ñu daan jarale ba Maodo sax man bi si suñu waajur yu génne àddina Maodo mu sëñ Abdou bi mu dikkee ca kër ga ca Ndofane fa la taxaw wax ne seen baay su ngeen ko xamoon ndax suñu bàyyi daan nañu wax ne du ngeen ma xam lu dul damaa dee balaa ngeen ma xam rek damaa dee bu yaram bi la ñu daan wax suñu bàyyi moom suñ Maodo bi mu ñëwee dafa wax ne sëñ euh, sama papa Alaaji Abdou de am na benn secret bu ma doon utloo wóor naa muqaddami ci yaan yëpp ñu ma xam amuma waaye si seen bàyyi la ko rek sama bàyyi amee yàlla may ko ci lasraar nag boolem secret yoo xam ne góor yàlla yi ñu koy am ci wàllu lasraar suñu bàyyi yàlla may na wattu na ko li ci gën a bëri moo tax secret bu ñu dégg rek bu ñu seetee ci ci bagage yi rek danañ ko fa fekk moo tax lii ñu nekk nii di ci yëngatu nii muy wàllu faj mi du loo xam ne daf ñoo dab dañ ko judduwaale Maodo moomu ne sa sa euh, euh, Alaaji Abdou roi Assane II bi mu jugee ñu ñëw Sénégal ci dem sëñ Abdou joxoon na ko benn kaamil alxuraan kaamil alxuraan boobu mu joxoon Alaaji Abdou sama bàyyi la ko jox takkee ko moom mu xarit man samay doom yu bari bu ñu juddoo kaamil boobu lañ leen di jàngal bu ñu wàccee bu ñu wàccee alxuraan ñu si gën a bëri kooku mooy suñ papa pour wax suñ euh, jaar-jaar tuuti balaa ñuy ñëw ci ñun suñ maam mi nga xam ne moom moo jur suñ baay muy mataar xawa moo jur mooy sama maamu papa sama baay baayam mu ngi tudd Babacar Diop Babacar Diop moom baayam mi mu tudd mataar xawa mataar xawa moomu moo jamonaantoon ak maa alaaj Abdoulaye Niass radiyallahu anhu ak Maba Jaxu ak euh, ñoom Maam Mor Anta ak euh, ñu la jamonaante loolu waaye nag daf leen féete woon mag dañ joxoon ko cër lool ak sëriñ por ndax mosoon naa gàddaay dem mosoon naa dem euh, euh, boori Koungheul ca sëriñ por mosoon na dem ndax nettali lañu taarix boobu suñ maam moomu mataar xawa moomu maba joxo bi muy daxal ji gëm ko njëkk yi gént ñu mu géntaat ko yoonu ñaara ba nga ko na ko am nga ci ndigal taalal nga jihaat ndax ñoom daaw daawuñ def dara te daawuñ diisoo moom daan nañ diisoo moom ndax mag ñi ku leen féetee xan mag yi diine dañ ko daan jox cër te dañoo bokkoon nekk nekk ñoo xam ne dañoo bokkoon lislaam la nekkoon seen soxla ñu doon xeexal lislaam waaye léegi la xëccoo yi am boo ko ci nettali taarix sax mu ne daa sos ndax duñ bëgg mukk kenn am cër ci ci wàllu diine ci seen maam donc ñun suñu maam moomu nga xam ne mooy Mataar Xawa moom jamono wante woon na ma alaaji nekkoon xaritam jamono naan nag Maba Jaxu tafsir Maba Jaxu nekkoon xaritam ak ñoom sax sëñ euh, ba euh, bàyyi sëñ Tuubaa euh, bàyyi sëñ Tuubaa mooy maam Mor Anta Sali ba ci wëlëri kooku ñu wëlëre woon te nag ak suñu maam moomu Matar Xawa Matar wëlëre waat ko suñu bàyyi Babacar Diop wala kóllëre googu moo continué ba ci sëriñ Tuubaa ba ci sëriñ Tuubaa da daan Poroxaan di ñëw suñu kër ca Ndofane daan ñëw suñu kër ci Ndofane daan seeti sama mam bi ju sama yaay muy Malick Diop ba ci ci seeti googu ak kóllëre googu ci la fas sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa fasu sëñ Tuubaa bu weex boobu bu ngelawoon wa ci suñ kër la wàccee liggéey ci Ndofane fa lañ ko denc ndax kóllëre gu suñu maam amoon ak baayam baayam am ko euh, moom mu am ko ak suñ suñ suñ suñ sama maam bi jur sama yaay nga xam mag ñi benn lañu woon man foofu laa bokk nga xam ne man doom doomu sëriñ laa mas naa toog ab jotaay ci kër Papa Siraaji eh, ma wax ko ma wax leen ko foofu ne leen man ak sëriñ dabu ma ni sëriñ kër diine yëpp nekkee ay sëriñ ci ci Sénégal noonu laa nekkee sëriñ ci Sénégal waaye Baye Niass la yàlla may may goo xam ne ku xam dëgg rek te nangu may ak yàlla boo gisee may ak baay gi da teg sa may gi na la dem ci baay ci may ak baay gi nga xam ne mooy may ak dëgg gi waaye bu dee ci may ak aada rek nga xam ne li nga xam fii nii mooy sama baay sëriñ la sama maam sëriñ la rek nga nekk sëriñ kenn gënuma koo doon fii ci réew mi mm, ci sama juddu waaye ba ma ko bu ma ci juddu yooyu doyloowuma ko damaa jaar fi gaa di jaar tariq man faydu bi ba gannaaw bu ma la waxee sama baay moom ma jàngal ba pare wax la sama maam tuuti wax la si sama baay tuuti wax la si sama yaay sama yaay sama baay la koo gërëm man doom sama yaay dañ koo gërëm sama yaay man daf ma gërëm man dama am ngërëmal waajur man man sama yaay daf maa gërëm ne ma gërëm naa la ba pare ne ma gërëm naa la ba pare ruus la dem na ba moom dem na ba bu amee soxla du ma ko wax daf koy wax suñ mag wala mu wax ko sama rak na ko demal waxal ma Omar nangam ndax mënatuma koo laaj ndax am naa kersa ci laaj ko dem naa dem na ba wax ko chauffeuram bi nga xam ne mën naa ko ko jëlal ba tey chauffeur bi sama yaay génn àddina ma ne ko salaire ba ma la doon fay ndax sama yaay defuma ko woon ngir sama yaay dama ko woon def ngir yàlla duma ko dagg dama koy wéyal fii ak maa ngi dund yaa ngi dund da nga am salaire boobu nga liggéey nga ñàkk liggéey day wéy ndax pour jàngal nit ñi lu jëf ngir yàlla wala ma fàttali ko nit ñi sama yaay gërëm na man ma mujjee gërëm mu sama téléphone bi ñaanal na ma ñaanal na ma ñaanal na ma ba mujj gi wootuma doom xarit la may wooye mujj dundam xarit sama xarit ak sama waaye la ma mujj ooye yaakaar naa nag xale yi war nañoo góorgóorlu liggéeyal seen ay waajur pour ñu am seen ngërëmi waay waajur waaye sama baay nag daal dafa dogal ba muy génn àddina fekk na man ma nekk ndaw waaye mu ak dundam man maa daan dawal watiir bokk na ci li gën a tardé sama njàng mooy liggéeyal sama ay waajur ndax yàlla dafa dogaloon jamono ñëw ñun ñëw doolam lool sama yaay ak mbëggeel gi mu am ci suñu baay ay baay yaayam bàyyi woon ko mu doon woon ci yaayam ay nag nag yooyu la jaay jënd ko fas ak watiir jox ma ko man ma koy dawalee watiir li may wax waa Ndofane xam nañ ko mas naa tooñ si sa baay ma ne koy man du ma sa morom ndax sa jouru ngénte bi ñuy jigéen géwél dem ngénte di ko su su ko déggee dina wax dama koy sànni xel waaye maa ngi koy jéggalu ba géwéli di dem ci ngénte la bokkoon naa ci ñu doon yëpp géwéli di leen yóbbu yóbbu ci ngénte Cissé Baye pour ñu xam ne man du ma xale buy taxawaalu Cissé Baye tey sëriñ la moom xam na li may wax eh, mooy borom kii ba Cissé borom kii man yaa ngi dégg sama moom sama baay sama waajur sama yaay jënd wëtiir jox ko jox ko ko man ma volontaire xale yi bu ñuy jàng man may dem di dawale wëtiir moo tax Cheikh Omar Ka ba ma ko waxee mu ne ma Cheikh Omar man damay dem jàngi booba man maa ngi ñëw Dalifort egsi gu ma foofu eh, dinaa dinaa ci egsi ci loolu noonu sama sama waajur woowu ma koy liggéeyal man maa doon indi dépense suñu kër booba maa ngi am juróom-ñeenti at man ba ma amee juróom-ñeenti at ba tey maa joxe dépense suñu pour ma wax nit ñi kii wax kana juróom-ñeenti at ba tey man maa yor su man maa joxe dépense suñu kër mosu maa daw mboolem suñu famille yëpp yëpp yëpp yëpp maa leen gàddu maa leen yore te lii sama yaay nettali na ma ko sama li jiitu sama juddu ndax man balaa may ñëw ñoom xamoon nañ ne danaa ñëw sama yaay nettali na ma ni ñu ma doon xaaree ni ñu doon waajee samay mbir ba ma ñëwee teg ca liñ leen waxoon ak yëpp ba ma juddoo yëpp mu nettali ma ko ba xamal ba ca wax ji sax waxal na ma ne ma sax xamal nañ ma ba xamal na ma samay njaboot yëpp yaa leen di yor te loolu tey moo am maa ngi ci sant yàlla ci loolu sama yaay moom ma ko wax ci làmmiñ boppam kon man yàlla dafa def samay waajur dama leen liggéeyal sama waajur jigéen gërëm na ma ba am naa ci ay seede ku ko déglu dana xam ne li may wax lu wér la waa Fada leer na leen waa Ndofane leer na leen waa Dalifor leer na leen waa Gannaaw Raay leer na leen waa Cité Aliou Sow leer na leen waaye Yoff leer na leen donc man doom juñ gërëm laa macha allah sama sëriñ ki ma li ma dugal ci tariqa tijaan li ma dugal ci fayda wala li ma dugal ci tariqa tijaan mooy sëy seex al ki ñuy wax euh, sëñ Aliou Cissé sëñ Aliou Cissé nag moom waa jaamal la moom daara la yor ci Ndofane mooy dugg Ndofane daara ju mag di ngay gis ci sa ndeyjoor ci wetu terrain ba sëñ Aliou Cissé moomu moo moom daara jooju bi muy jugee cànga waa safara waa cànga la ma naan waa jaamal sax ba muy jugee cànga di jugee cànga di ñëw Ndofane booba moo fekk ca daara jo ñu daara ñu ngi jàng sama wajuru góor moo ko dalal moo ko dalal foofu mu dëkk noonu ci ci Ndofane moo tax daf ñuy wax ne man su ma leen gisee sama xel day dal ndax yéen suñuy yéen yéen samay njaate gi ndax seen bàyyi moo ba mu jógee daara ja ñëw ànd ak njabootam yeeg soxnaam yaag taalibeem yaag yëpp jugee càng ñëw suñ kër la wàcci sama baay moo ko dalal ci daara ji ñun ñëpp ñu bokk nekk ak ñoom foofu noonu ba sama baay dalal ko foofu ci kër googu mu nekk noonu ba mu bi may jël tariqa tijaan moom moo ma ko jox man sàkkuwuma ko woon sax dañoo dem siyaare ji ko mun a ma nii jot na ci yow nga jël tariqa tijaan expliqué ma sartu tariqa tijaan yëpp di ma ko jox genn wàll gi genn wàll bi ma bi ma koy jox maa ngi fàtt maa ngi maa ngi koy déglu waaye mu mu mu mu waxal ma yëpp sartu tarixa tijaan yi ba pare nag tàlla ma tàlla sama loxo mu jox ma tarixa tijaan mm-hmm. waaye bi ma demee nag ba nga xam ne dig jot naa xabaaru Baay Ñas ak Baay li ñuy wax ne gis yàlla ma dàq dugg aljana Baay day ne yàlla ma ne loolu moom du ma doon kump ci man ci laa takki sama bagage nag ànd ak ki nga xam ne mooy euh, Bukar Baaxum Bukar Baaxum mu ngi Italie lan la nekk fekk yaakaar naa fan yi dégg naa ñu ne def na France sax fekkee na Boucar Bakhoum moomu rakk Cheikh Kabou Bakhoum la Cheikh Kabou Bakhoum sama xarit la bokk dëkk Ndofane ñun ku ne xam na ko rakkam moomu laa àndal na ko man damaa bëgg a tarbiya te damaa bëgg mu ne ma man Cheikh sama sëriñ mooy Cheikh Mouhamad Nazir moo ma tarbiya. Cheikh Mouhamad Nazir doomi Baye. Cheikh Mouhamad Nazir doomi Baye mu ne ma nañ dem kooku moom kum tarbiyam Medina kenn du werante sa xam ma ne a baaxee laa soxla de nañ ma yóbbu foofu lii moom ma kër moom ma yóbbu kër Medina Baye ma demee kër Cheikh Mouhamad Nazir ma fekk Cheikh Mouhamad Nazir mu ne ma demal ba àllarba nga ñëw ndax mbir mu nekk buñ ko tàmbalee àllarba yàlla dana ko mottali te dana dana rafet ci moom laa njëkk xamee loolu. loolu secret ba ma ko waxee booba man maa ngi liggéey ma sànni sama liggéey damaa dagg ma sànni ko daal di dem pour tarbiya ji léegi nag bi nga xamee ne ñëw naa ci Cheikh Mamadou Nasi mu ne ma demal ba àllarba te booba altine la ma dem ci jumaa ja fa fanaan ci jumaa ja laa toog daanaka yóbbuwuma xaalis falaa nekkoon xiif bu bëgg maa rey tuuti ma doon ma dee fa sax si jumaa ja awafuma lekk awafuma naan waaye ma ne yàlla jëlal na ma ba toog si jumaa ja altine talaata ba àllarba ci ngoon ma ñëw wax ko ma ñëw ne ko yàlla moo naa xaar ba àllarba ma fekk ko école booba am na benn ku ñuy wax alkaati baay alkaati baay benn sëtam boo xam ne mu ngi nekk boori fat di jàngale sax dafay fat tur bi yàlla yàlla dimbali ma fàtte tur bi laa àndal mu yóbbu ma si sama sama man Nazir mu ne ko sëriñ bi kii yaa ko joxoon ne ko na bàyyi ba àllarba mu ñëw mu fekk ko maat ba laa ko fekk maat mu diir bu ma ñëwee ci maat ba nag fekk fa Cheikh macha allah mu ñaanal ma yàlla jox ma ndigal jox ma yëpp na ma bu guddee nga fekk ma kër ga ñu ma ñëw fekk ma kër ga nag ma léegi laaj ma foo dal ma ne ko man amoo ma dal ci jumaa ji laa dal mu ne ma dalal fii fii ci kër gi boole ma ak Mamouda ma booleeg Mamouda Mamouda dalal ma ma nekk ci kër gi ci kër Cheikh Mouhamed Nazir lii moo ma boole kër Cheikh Nazir fa ma fa nekkee yàlla dogal Maamouda nag ma nekk Maamouda ma nekkoon mbokki néegi Cheikh Mamadou Nazir léegi ñibbi na sax mu nga Nazir jamono boobu yàlla defal ma sutura Cheikh Mamadou Nazir jox ma aska tarbiya man dong la tarbiya jamono boobu ñaari weer ma nekk ak moom weer mbiri na mu ne ma damay dem neema kaay ma jox la paas nga jiitu ma neema ba man xaw ma neema gàmmi moo ma jox paas taal otom yóbbu ma ba su ñoonu man ak Cheikh Mamadou Nazir ak safaram bu ñuy wax sew sew sew moo jur bàyyi moo jur euh, Cheikh Baye Cheikh Baye Niass Baye Niass Cheikh Baye Niass mi ne ci internet bi macha allah borom xam-xam boobu nga xam ne li ñuy liggéey fay du rëy cheikh moomu mooy baayam. chauffeur Nazir chauffeur Cheikh Mohamad Nazir mooy baayam. booba moom ñoom xale lañ booba ay xale yu tuuti lañ tuut tànk lañ booba daanaka sax ay ñetti at ay ñaari at yooyu ci lañ am wala lu ko weesu la côté yooyu. <coughs> ndax ay ay quatre ay quatre vingt dix la quatre-vingt-seize quatre-vingt-dix-sept côté yooyu la woon mu yaa ngi dégg nag. yàlla dogal mu taal oto ak chauffeur ma toog ci kanam Cheikh Mamadou Nazir toog ci ginnaaw ma yóbbu ma ba gàm ba gaara ñoro mu jox ma paas man ma joxee paas na ma demal nee ma soo demee nga laajte Babacar nga ne ko maa la yebal nga toog xaar ma danaa ñëw alxemes waaye fàtt naa bis la woon waaye ne ko mu ne danaa ñëw alxames alxames boobu laa jàpp ma dem bi ma wàccee oto bi bay dem chauffeur bi daw dabaat ma ne ma sëriñ bi nee na nga ñëw mu ñaanal la ma waññeekuwaat ñëw mu ñaanal ma jour boobu may dem mbuus ñetti dërëm yu bële yii laa def sama yére yi duma ko fàtte. ma ànd muy jar 100 francs yi jar 100 francs mbuusu mbuus maanaam mbuus ñetti dërëm sax mbuusu 100 francs yi jar yu bële yi moom sama yére yi sax sax aw ma ko. booba damaa gàddaay lépp bëggatuma woon dara àddina ma jël sama mbuus bi daal di dem moom mu wàññi ma wàññeeku ak mbuus bi mu ñëw mu tàllal loxo yi ak wàccee verre yi wàccee verre gannaaw oto bi booba mu ngi am benn Mercedes bu verte Mercedes bu verte boobu nga xam ne moom lañuy wax bawal bawal si léegi ci jamono bii waaye jamono boobu moom oto la woon léegi mu ñaanal ma ma dugg oto daal di dem fu ma oto bi ma dugg cette place bi ma dugg ki ma ki ma dugg euh, lépp luñ lu ma war a def ci oto bi rek moo ma ko defal li ñuy jël moom may jëndal li ñuy wax moom may waxal man naa paasal sama bopp waaye lépp lu ñu war a def moom moom ko defal bañ dem ba wàcc kaar bañ wàcc kaarang ñu àndaat dugg féeri bañ dem féeri ba bañ duggee ci féeri ba wàcc ba ne ko maa ngi dem nee mu dugal ma oto neema la ñuy soog a ko mu fay oto bi ma daal di dem ba ma wàccee ma laajte neema nasiru ñu tegtal ma ma ba yegg ba ma laaj Babacar Babacar mooy bëkk néegu Cheikh Mama ma nekk foofu ak Cheikh Mama Nasiru nekkaat ak foofu moom weer ba ma nekkee moom foofu weer waaye bi may nekk Medina mu jox ma aska tarbiya may tarbiya Medina dem naa ba am fattufu ci Medina man dem naa ba xam salaatul fatiha yàlla wan ma ko nii comme ni may janoo ak yow ma gis poto la poto poto photo poto yi nekk ci jumaa ji nga xam lu tax boo tabaxee néeg li tax poto yi attan ko man yàlla war na ma ko nii ma xam lu tax poto boo ko taxawele mu àttan néeg te du daal ca jumaa yi Medina Baay ji laa ko gisee ngir si kat laa tu fàtte yéegu métti ga ma doon ci kat ma am fatu yàlla xamal ma boppam xam ngoo xam ne amul intermédiaire ma dem nekk ci sikar si di jàng salaatu fatiha ba salaatu fatiha di jàng boppam ci man di jàng salaatu fatiha ba poto yi poto yi nga xam ne ñoo nekk ci jumaa ji poto bu nekk may dégg ni muy jàngee salaatu fatiha nga xam ne li yàlla di wax naan lépp mu ngi may sàbbal ndeke lépp day julli ci yonent bi ni muy sàb ni ñuy sàbbalee yàlla noonu la ñu jullee ci yonent bi loolu dem naa ba xam ko dem naa ba yàlla sekkar ci sama nopp ci sikkar si ba ma xam ndënd yi ñuy tëgg ban tur yàlla lay sikkar ci tur yàlla yi dem naa ba àgg ci xam loolu ndax ngir sikkar su métti si ma doon xam jaar-jaar tarbiya fi ci gaa yi jaar man jaar naa ci man un mois la tarbiya yàlla may ma fatu ndax bàyyi wax na ne gaa yi sóobu jëm ci yàlla da gis koo xam ne benn waxtu lay tarbiya egg ci am ci koo xam ñaari waxtu lay tarbiya egg ci am ci koo xam ne benn bis lay tarbiya egg ci yàlla am koo xam ne ñaari bés lay tarbiya am koo xam ne semaine lay tarbiya egg ci yàlla am na ci koo xam ne weer lay tarbiya egg ci yàlla lii bàyyi da ko bind am na koo xam ne ñaari weer lay tarbiya egg ci yàlla am koo xam ne at lay tarbiya àgg ci yàlla am koo xam ne ñaari at lay tarbiya am koo xam ne dana tarbiya fukki at egg ci yàlla am koo xam ne dana tarbiya ñeent fukki at egg ci yàlla dana tarbiya juróom fukki at soo ko egg waaye man weer laa tarbiya egg ci yàlla waaye ñaari weer la sama tarbiya diire moom moo tarbiya ba pare booba gannaaw bu ma tarbiya ba pare nag la bàyyi Mouhamad Nazir soo ko tarbiya ci la Naziru Ñang soo ko tarbiya ci la Cheikh Ali Ndiaye ah, Cheikh Cheikh euh, Aziz Ndiaye soo ko tarbiya euh, waaye Cheikh Ali Ndiaye moom moo ma njëkk a tarbiya ndax Cheikh Ali Ndiaye Cheikh moom moo ko tarbiya ñii ñoom laa bokkal sëriñ ak ñeneen ak ñeneen ñeneen am na ñeneen ñoo xam ne xam naa leen ci ci tarbiya boobu bu ma tarbiya bàyyi mi nekk xalifa Cheikh na Nazir tey gannaaw bu ma tarbiya ba pare ñoom ñoo ma mujjee tarbiya sax ni ñuy wax ne wali yu yàlla mu ak dundam ku jonjong moom rek dalay xëpp ci ay maqaama man ba may tarbiya man dong la doon bi ma terbiya ba ma fa ba ma dem nee ma mu jas bu moom mu am fanaahu gan ba ma amee fanaahu fanaahu dafa métti woon ba waa Gàmbi yàlla lañ ma doon ooyee yàlla joo xees ji lañ ma doon ooyee su ñëwee di ma nuyu sax dañ ma yàlla joo xees na nga def Nasiru Ñang mi nga xam ne nag moom man man ak moom ñoo nekkoon neema man moo nekkoon sama njaatige neema Nasiru Ñang moom gaa yi xam nañ ko mooy Nasir dafa am ñaari Nasiru Nasiru Ñang bu école ak Nasiru Ñang bu Dakar Nasiru Ñang bu Dakar nag laa nekkaloon waaye man ba ma nekkee nee ma oustaz jànqa saa yu ma nekkaan di wir da oustaz jànqa la mu diir daan oo Cheikh Mouhamad Nazir ne ko jànq mën naa ma ne ko wool ma Omar Diop ma ñëw mu ne ma toogal fii nga sikkar ma di la déglu Cheikh Nazir bu toogaat nee ma man maa daan sikkar mu daan mu ma daan déglu mu daan mu daan mu daan mu daan déglu man maa ci wetam di ko sikkar su ma xëyaan suba teel daan naa toog huit heures ba dix heures man ak moom ak yàlla kenn duñu ñaar kenn duñu ñaareel moom ma daan jàngal samaaw moo ma daan jàngal bayti bàyyi moom Cheikh Mamadou Nazir moom moom moom may yaral boppam mu ne ma man dama laa bëgg a defar ba nga xam ne boo demee ñu xam ne jaar nga fa dama ko nettali sama jaar-jaar ak sama bàyyi ni mu nekkee muqaddamu euh, euh, kii ma ma ah muqaddamu fële waaw muqaddamu sëñ Babacar si xamal ko ne ko man te Cheikh Mamadou Nazir balaa mooy dafa maa nattu nattu yu métti mu ne ma yow ko dëggu nga moom moo ma seede ne ma yow ko dëggu nga ndax nattu yëpp nattu naa la ma man pour man loolu yëpp ci tam yoo bokk waaw man xam ne ma sax luy nattoo luy parce que man pare naa ci àddina léegi mu ne mu seddal ma mu ne ma yow ku dëggu nga après léegi gannaaw gi nag mu may wax na ma man dama lay defar dama lay defar ba nga xam ne boo ñibbi ñu xam ne defar nañ la man moom sax suba teel bu ñu xëyee suba teel li may wax ni Babacar seede ci xam na ko ndax Babacar man ak moom ñoo fa nekk ak jaase am na ku nekk euh, neema mu ñu koy wax jaase mi ngi foofu Eh, jaase xamatu yaakaar naa jaase la su ma ñëw jaase waaw ñoom ñoom euh, maalam maalam mii ak boppa booba ay xale lañ ñu ngi nekk neema ak ñoom ak man maalam mu nekk kër mu diir ñu may wax ne waa Medina waaye xam nañ maalam maalam mi nekk kër mu diir ak boppa rakkam ñoom xam nañ li may wax ndax man loolu moom fa la leen fekk ca ca neema ndax wax doo gis ju nekk am na te neex seen seen nasir mi nga xam ne mooy nasiru ñàng mi ñuy wax nasiru ñàng Dakar afa am ak nasiru ñàng école waaye fo jamono boobu euh, ki ñuy wax Seck Seck tam moo doon bindal mudir fa la fekkoon ak ñoom Moustapha moom Moustapha Seck fa fekkoon ñoom ñëpp jamono yooyu mudir fan la ñoom ñëpp gaa si Moustapha Seck gaañu na jànq gaañu na yàlla leen yàlla yërëm te yokk ñoom ñëpp gaañu leen loolu moo boole ak ak euh, kii euh, jamono boobu jibi jibi mi nekk yesaw booba moom mu ngi Medina ba may mujjee giseen giseen teg Cheikh Mamadou Nazir boobu man ak mudir ak ak jibi euh, ñoo toogoon ci la ma Cheikh waxee patron wala gars yi bu ñu gisee ma am xaar yi xam ne. macha allah macha allah lii ci làmmiñu wala yu yàlla la génnee moom ci la ma waxee parce que boobaa ñu ngi Dakar ñëw euh, mu may mu dal ci sama kaw na ma waa sa waay gàmmu nee ma ko ñëwoo ma ne ko ah kay ñëw naa mu ne ma ñëwoo mu ne ko ñëw naa mu ne ma lan mooy tegtale si ak ñëw pour ma gëm na ñëw ma ne ko bi ngay génn kër gi taalibe ñu ngi buuxante ba buntu kër gi ñu tabaxoon noonu miir bi dafa daanu mun ma ah saa waay wax nga dëgg waaw moom daf ma bëggoon ca moom man nasir yàlla dafa nekk sama xarit yaa ngi dégg bi ma tarbiya nag ba ma pare ba ma xegg ma ci yàlla doxal ma sayru sama mën na si doxal ma xam gu wér a a wér man mu leer ma man xam naa yàlla mu leer ma man xam nga waa shahid naa ilaa ma alim naa man leer na ma man Cheikh Omar man xam naa yàlla kenn gënul ma koo xam sama xam yàlla gi kenn la gën a leer ko dut man am ma gitt nag ci xam yàlla waaye man sama xam yàlla gi man la gën a leer ñi ñëpp Cheikh Omar man nasir mu seedal ma na ma Cheikh Omar xam nga yàlla xaarifu bi laa nga yaa ngi dégg mu o oh Moustapha Moustapha taawu Cheikh Mouhamad Nazir waaye léegi Baye mooy mooy mag Baye ak Moustapha ñu bokk yaay yaay roqi mooy seen yaay yaa ngi dégg Moustapha moomu la oo woo ca ca gannaaw néegi ñaf ba mu taaj leen ne te dama leen a bëgg a taaj ngeen seede ma ma wax leen ne kii Cheikh Omar Diop mii Omar Diop mii xam na yàlla xaarifu bi laa la mu yéen ñaar ñii moo leen ëpp maqaama ci yàlla moo leen gën a xam yàlla bañ génnee Moustapha dafa ma wax na ma sama sëriñ ma ne ko xaraam bu ma waxati loolu sëriñ bi daf may wax rek góorgóorlu naa la rek waaye xam nga ne moos doo doo sama morom Moustapha mu bokkoon na ci ñi yàlla wërsëgal mu doon gis bàyyi ak bët guddi gu ne ndax man sama xarit la woon kaamilu alquran bee ma teg na le bu xonk bële ko jox ci loxoom ne ma maa ko faslante yow ak yow kóllëre kaamilu alquran boobu xam naa du teyal ci jël ko wan ko nit ñi pour gis ko pour ñu barke la woon loolu bii di dubi xonq maa ngi bàyyi kër bokkut ak bi waaw bokkut ak boobu waaw mm, mm. dubi boobu maa ngi ko bàyyi maa ngi ko bàyyi sama kër boobu maa ngi ko bàyyi sama kër bokkut yaa ngi dégg ma dégg maa ngi dégg loo ci dérangement bi mm, ndax daf kaamel bu xonq la comme nee na mel yaa ngi dégg voilà comme noonu la mel comme kaamel bu xonq léegi nag Moustapha moomu jox ma kaamel Alxuraan dama lii maa ko fatlante yow kóllëre ngir seede gi la sëriñ bi seede sama maqaama maa la ci ndokkeel ëkkati kaamil bi jox ma ko Cheikh Mouhamad Nazir balaa mooy Moustapha ma kaamil Cheikh Mouhamad Nazir ne ko Moustapha amoon na grand mbubb bu ma la jox mel nangam wax grand mbubb bu ma ngi ko denc ba ne ko dama la ma ko Moustapha delluwaat jëm jël grand mbubb ba indi ko to xanaa ku yàlla bu joxe ab yërëm am na lu muy junj Moustapha am nga àllaaxira yal na ko yàlla yërëm yal na yàlla yokk leeram Moustapha moomu Moustapha Cheikh Mouhamad Nazir bi mu séddalee loolu après na ko demee indil ma yëre bi mu indi grand mbubb bi teg ko ci sama loxo ba ma joxee grand mbubb bi ne ma ak sa sawaaye del sañse ndax yàlla dafa taaru te dafa bëgg lu rafet del sañse loolu moo tax ngeen gis tout le temps may sañse di sol yëre yi rafet bëgg ko macha allah loolu si sax maama nazir laa ko jëlee mu ne ma del tudd yàlla fépp foo fekk di jotaayu tudd yàlla dee dee fa dem yaa ngi jàngal ma sàmmaaw yu bari di ma jàngal ba yaral ma boppam am sama jot ba yàlla dogal ma jógee foofu ñu ñëw ñu mu ñibbisi mu ñibbisi euh, euh, Dakar mu ñibbisi waat Medina jour bi muy ñibbisi Medina. nga jógee Neema jëm ñu jógee Neema ñëw euh, sekk la ma booleel kii sekk waaye dama doon bindal mu di damay fàtte tudd bi dama gëj kii hmm. ñu ñaar ñoo ànd. sekk lu mu doonoon ci moom. sekk moo ko doon bindal. bindal lasaraar bi quoi. maa ko doon bindal lépp ñaan yàlla yi. Ah, ñu ñëw ñëw ci moom di ko sàkk ci moom. Hmm. yooyu yëpp moom moo la moom moo la ko doon sant moo koy bindal. Hmm. yaa ngi léegi euh, euh, ñu ànd ba ñu àndee dem euh, fële Baara ñu toog foofu xaar fa Cheikh Mouhamed Nazir Cheikh Nazir ñëw ñu ànd def convoi ñëw Medina bi ñu ñëwee Medina ñu fanaan foofu maa ngi fàttaliku guddi googu ñu fanaanee foofu man daaw ma nelaw guddi bu ñu fanaanee foofu nag coono bi jàpp moom mu biddanti sax bu ñuy salaatu fekk fekk kenn ñun yeewuñu bu ñuy salaatu rek mu di ñu ñëwee bu ñu ñëwee fekk ñu ngi tëdd di nelaw sama tànk la kaj ji mm. na ah sawaay léegi dangaa dangaa kii da kii da nga sa xel daa dal nag léegi moo tax ngay nelaw ba heure bi mu ne ko yee damaa biddanti yaa ngi dégg damaa damaa bind mu yeema ma jóg ñu dem ñu jóg mu jóg pour wannee ne na Nazir ñàkk caaxaanam moo tax man su ma gisee ñu bëri tey ci jamono bii eh, ñu am ay sëriñ ñeme leen am sëriñ yàpp ko wala nga am sëriñ miin ko man damay tiit su ma ko gisee parce que ñun mu ñu nekkee mudir dafa mel ni bàyyi Niass lañ nekkaloon mu diir boo ko daan xool macha allah daf doo ma nam woon ci bàyyi dara dara dara ndax Cheikh Mamadou Nazir fulla ba xëy ba ga taar ak hitti gi mbaax gi yaatu gi dal gi ak daraja ko yàlla may nga xam ne boo duggee ci kër gi rek xam ne fii kilifaan ci biir kër gi yar gi mu yare woon njabootam loolu man manqué naa manqué na léegi ci ci kilif ci jamono bii Cheikh moomu benn bi ma bi ma waseereelee loolu ma toog man ak yàlla dong may xaatir si sama xol ma ne waaw man comme ça ma a seedeel na ma ne xaarif la tax xam naa yàlla léegi maa ngi dama dinaa wax dinaa dinaa dinaa xool benn bés ma toog ak moom mu waxtaan ak moom pour ma wax ko pour mu bindal ma ijaaza yaa ngi dégg de man man ak yàlla pour war na Cheikh man Nazir wala yu yàlla xaqal la ba may pare rek la may oo sama xaatir de man ak yàlla mu oo ma Omar Diop ñu ne Cheikh Omar Cheikh Omar Babacar Omar Diop Omar Diop kaayul ma ñëw mu ne ma toogal ma toog mu ne ma bul yàkkamti hmm? bul yàkkamti man Cheikh Seydi Aliou Cissé moo ma tarbiya ci loxoom bàyyi moom la ma booleel mu tarbiya ma bi mu ma tarbiya ba ma am fattu ci yàlla fukki at laa ma ma ijaasa mu ne ma bul danaa la jox ijaasa bu wér man man man Cheikh Mamadou Nissine danaa la jox ijaasa bul yàkkamti hmm? te waxuma ko dara wala yàlla yi dañ lay yar dégg sa làmmiñ di dégg sa xol pour wala man fan laa jóge man sama diggante ak Baye Niass ñaari nit moo ci dox man sama silsila la ci Baye Cheikh Mouhamad Nasir la Seydi Hadji Cissé Baye Niass man faratuwuma xam yàlla te Cheikh Mouhamad Nasir moo ma seedeel na man xaarifu billaa la moo ma seedeel na man xam naa yàlla te Cheikh Mouhamad Nasir babul hadaratin ibrahimiya moo ko xatar bi ya seedeel ko ijaazaal ko kooku la bàyyi wax na ko mooy sëriñu ay taalibe mooy sëriñu ay doomam Baye Niass radiyallahu anhu est-ce que dina wax nit ku xamul dara na xam nga dara même boo xamutoon dara bu la fay xam nga dara sax yàlla def nga xam dara. Mm-hmm. waxuma laa ne koo xam ne bàyyee ko yar def ko mu nekk buntam mu dem dénk ko njaboot ki dénk ko taalibi bi taalibi bi kooku ku mu yar ku mat ngay doon kam yar noonu ku mu yar ku mat lay doon mm-hmm. kon man sama diggante ak Baye Niass man Cheikh Mouhamad Nazir Cheikh Mouhamad Nazir Seydi Hali Cissé Seydi Hali Cissé se Ibrahim Niass man mooy sama silsila man ci ci ci ci ci xadaratu Ibrahimiya kon kenn du laajte Cheikh Mouhamad Diop Cheikh Mouhamad Diop lii mu xam ci faydul ndax da koo tappalaatu wala da koo foraatu waaw léegi bi mu la waxee loolu ci ijaasa bi na nga muñ bul yàkkamti après après yàlla dogal mu génn àddina mhm. ndax innama ahmaalu bi niyati wa innama li kulli imri'in maa nawaa mhm. dëgg rek dafay feeñal yéene waaye yéene moo am jëf amul jëf zahir la zahir baatin lay tegtale yéene moom ku la ko yéene rek moo tax yàlla dafay wax ne jullit ñi seen jëf seen yéene lay gën a fay ni seen jëf ndax am na benn waliyu yàlla boo xam ne dafa bàyyam koy nettali dafa yéene woon aji màkka yàlla dogalu ko mu yéene waat aji màkka yàlla dogalu ko mu yéene waat màkka yàlla dogalu ko ñeenteelu aj yéene ba mu yéene yàlla dogal ko mu dem aji keroog ba mu demee màkka am na fu bàyyi wax na fa taxaw jàppatuma daf maa rëcc waaw mm. dafa wax ne yow yàlla na nga nangoo woon sama aj yi njëkk ya mm-hmm. nangoo nangulee ma ko sama aj gii nga ñëw ndax aj njëkkee amut ngistal yaa ngi de kon éene gi ma Cheikh Mamadou Nasir éene woon Ija Samba mm-hmm. kon man amut sikki sàkk ci ne mm. jot naa ko ci zahir ci mm-hmm. ci kanam ba ma waxee loolu man ma doy loo wax jooju booba laa a xalaat loolu xalaatuma ko sax parce que na naa moom xam naa ko man dund nañ ma moom ndax yàlla may na ma tawfiix benn bis gàmm gu mujjee gàmmu neem maa toog di xool sax ma mën si ba yàgg may gis ñuy bàyyi ñes man si gis bàyyi yàlla wanee bàyyi ci jëmmam ma gis ko nekk bàyyi xan yàlla may na ma chance boobu yàlla dogal nag ñuy dem Cheikh Mamadou Nasir génn àddina Cheikh Abdoulaye Niass mii nga gis muy se doomu Cheikh Mamadou Nasir booba muy nekk Cheikh neema di nekk kër Mudir booba moom ma nga keer di jàngi di jàng nekk fa ak ñoom bàyyi mosuma koo gis ak bët moom ci gént la ma ko Cheikh Mouhamad Nazir présenté na ma kii laa la booleel. Cheikh Abdoulaye Mody Cheikh ab Cheikh Abdoulaye pour ngeen déglu bu baax li may wax mu ne ma kii laa la booleel toog naa gént googu ñaari at yàlla aw ma ko ma ko nettali ba ñoom ba bàyyi ñibbisi Cheikh Abdoulaye Niass ñibbisi Nazirou Niang jugee ne Gambie ñëw nekk marché Alizé di jaay Alizé. di jaay ay téléphone booba téléphone Alizé la tudd yaa ngi dégg. Hmm. man ma daan jugee Dalifor daan dem booba man Dalifor quatre-vingt-quinze laa fa ñëw accès gu ma ci taarixu Dalifor. Hmm. ma ñëw jugee Dalifor dem euh, marché Alizé dafa fekk Cheikh Nazir daan jënd ay téléphone di ko jaay su ma ñëwee Cheikh Nazir comme moom moo xam téléphone yi di ma jëndal téléphone di ma jox may jaay léegi nag. ba bés bi ma toog ma ne ko saa yi ma ko bëggee nett li gi ba yàgg ma ne déedéet naa bàyyi ba maa ngi moom bañ toog waxtaan ci mbir Cheikh Mouhamed Nazir ndax moom ñaar ñun ñaar léegi moo nekkoon sama njaay di nga neema léegi Cheikh Mouhamed Nazir bi nga xamee ne yàlla dogal na euh, ma nekk ñu waxtaan maak moom benn bés ci affaire Cheikh Mouhamed Nazir ma ne ko man de damaa gént mu diir gént gu leer boo xam ne leeraay gi dégg na ma dayo daa ma dafa naa xam ne du gént gis na am na benn doomam boo xam ne boole na ma ak moom ne ma naa ko naa ko moom la ma booleel naa ko téye lu mu nekk naa ko xam lu ma nekk na ko xam nañ mel ni man ak moom diw ak diw am na ñaari tur yu ma wan yu ma wax waaye ñaari tur yooyu fàtte naa leen mu ne ma na ngeen mel ni diw ak diw ñu meloon ma a ko mu a ma Baye Mbaye la man Baye Mbaye laa xam ndax boobu ñoom ñu nga kër Baye Mbaye mu ngi nekk kër mu dir mu dir Baye Mbaye mu jàng alxuraan maa ngi maa ngi fàttaliku bëgg mu dir di kër ga di ko defar ba di bay seede na pare na da pare naa ci moom bàyyi mbay mu di da koo defar ba na ba seede na pare naa ci moom ndax mu du kum defar moo tax seet seetal seetal ñi ma la wax nag képp ku Cheikh Mouhamad Nazir yar ah te dëggu bi nga amoon ci faydu man gisuma ci kenn ku ma xam ku teggi tànkam lu mu leen xoolal Cheikh Aziz Ndiaye xoolal Cheikh Ali Cheikh ah, ah, ah, Aziz Cheikh Aziz Ndiaye Géejawaay xoolal Cheikh euh, kii Ali Ali Ali Ali Ali Ndiaye Kaolack yaa ngi dégg xoolal mu xaddami Cheikh Mouhamad Nazir yar yëpp tey seen taxawaay ci faydu bi nu mel yàlla moo ko mayoon barke macha allah ñoom ñëpp yàlla yàlla gën leen a dëgëral gën leen dolli si yaa ngi dégg ma nettali ko gént gi mu ne ma bàyyi mbay la ma ne ko déedéet bàyyi mbay xam naa ko du bàyyi mbay mais dañoo nuróog bàyyi mbay dafa nuróog bàyyi mbay waaye bàyyi mbay moom moo ëpp moo ëpp taxawaay bàyyi mbay mu ne ma Abdoulaye ma ne ko tegi tigi tur woowu la mu ne ma Abdoulaye moom sama la du fii ma na fi fi may ci Abdoulaye ne Galet yegg si taxaw te mosuma koo gis yaa ngi dégg ba mu ne ba mu ne ba mu ne Galet yegg si rek. Mhm. Cheikh na ma ndax kii la ma ne ko kii la ma ne kii la dafa maa ma nii moom la kii la fekk man gis naa ko ci gént laa gis kii la mu ne mu ne Abdoulaye mu ne Abdoulaye mu ma leen boole. Cheikh Abdoulaye mu ko lan la ñu boole explique ko ma ne ko waaye lii man nag yow la waaye damay ànd yow ba ci baay ca kaw lax ñu dem soo ñibbee wax ma ko ma ñëw kaw la fekk la foofu ci bàyyi ma toog bàyyi toog ma wax ko bàyyi dégg man jàppoo ma maa la jàpp ndax mudir moo ma boole yow te la ma boole yow naa ko téye wala ijaasa ba ma mudir waxoon ne ma danaa danaa la ko jox laay firndeel pour ñu xam ne am naa ijaasa ci zahir mm-hmm. am naa ijaasa ci baatin mm-hmm. danga xëy na tey taxawaay bii ma am ci bi mm-hmm. am na ñoo xam ne dinañ laajte kii sañ bi mu am wala ni muy waxee fan la ko pour teguwaay bi laay leeral yaa dégg léegi Cheikh Abdoulaye moom ñuy dem di dem di dem di dem ba benn bés mosuma ko walaaj ijaasa mosuma ko wax wax ijaasa Cheikh Abdoulaye moo bind ijaasa itlaax ba seen bàyyi bindal la leen seen ijaasa ñoom ñëpp kenn ku ci nekk teg sa loxo mm. Cheikh mm. ma Cheikh Omar bii maa ko teg ci sa loxo tënku ma la ci dara sa mutir tënku ma woon ci dara maa ko teg ci sa loxo jël ijaasa bi teg ci sama loxo mm. ma ko la ma bàyyam waxoon ne ma dana danaa la jox ijaasa bu yàkkamti ca gént ka mu ne ma kii laa la booleel may ngi soo a booba laay soog a xam boole gi ma boole ci Abdoulaye ci kóllëre rek takkante waaye kii daal la boole gi maa ngi ko doon soog a dégg ca ba ma jox ijaasa ma ne ah kon lam ma doon wax ne danaa la ko jox ndax wala yàlla seen wax day mat. Mhm. seen kanam ak seen ginnaaw ñoo yam moo tax ñi nga xam ne dañuy wax naan bàyyi jóge na fi <laughs> dama xam ne bu ñu xamoon luy bàyyi rek dana nelaw. Mhm. yaa ngi dégg loolu taxul ñoo jóg tey. Mhm. Eh, yaa ngi dégg. léegi nag mu boole ma moom. léegi nag man maa xëy benn bis dem xabru baay ndax man jamono boobu ki ñuy wax Omar Yacine mooy maguma Iliman Yacine mhm. nekk Ndofane ñu koy wax Pa Omar Niass waa Ndofane Pa Omar Niass lañ xam mhm. waaye waa Medina Omar mhm. Yacine mi nga xam ne moo doon garde xabru xabru baay ñu koy wax maam ñoo bokk ndey ak moom la baay yóbbu woon Ndofane ne ko toogal Ndofane laa la taaj mu ne du ma dem Medina lu dul damaa dee ndax baay fii la ma taaj mag ñi noonu lañ xamee woon baay noonu lañ ko bëggee woon te noonu lañ dëggoo woon ci moom yaa ngi dégg Omar Yacine moomu dama daan dem chaque ajjuma dem julli ji Medina Baye continuer Ndofane ngir mu may waxtaanal ci Baye mu ne ma man lépp lu ma lay wax ci Baye gis naa la waaye du wax du du ma la nettali ci Baye dégg naa mhm. mooy ba Baye di tin tamit tir tatbie ninki nànk ga sax bés boobu fekkee na ko moom ma ko nettali Omar Yacine moomu ba ma ko daan seeti di ko seeti di ko seeti ba benn bés ma dem Medina ba ma demee Medina Baye jaar xabru Baye mhm. ma ne Baye man damaa bëgg nga ijaasal ma ijaasa it laax laa bëgg ijaase boo xam ne mu baasaratan lay nekk du am mu baasaran lay nekk du mu baasaran lay nekk nga xam ne du am intermédiaire direct direct yaa ngi dégg ca guddi ga ba ma tëddee ndofaan te la ma bàyyi feeñu mbooleem ponkal yi ma xam ci faydu bi ak ponkal yi nekk alaxira ñi ma xam man gis naa leen ci jotaayu keroog keroog la ma bàyyi xamal ay secret xam-xam yoo xam ne ba léegi dégguma ku koy waxtaanee ci xam-xamu mahrifa man te guddi googa nga ma bàyyi la jafal ijaasa yaa ma pare ca ma pare ca loola de ndax gént la gént la waaye ñun xam nañ suñ sunna na ci pays bi mhm. gént bàyyi mooy lan ci ñun mhm. ndax yoonu saa saa dafa nekk képp ku ma sosal mhm. pare xam ne sa wàccuwaay ca àllaaxira mooy safara waaye ñun xam nañ bàyyi képp ku ko sosal mooy lan waaye li du sos man xam naa ba ma bàyyi ba ma bàyyi feeñoo ma may dem ma sol sama dàll dem kër Cheikh Mahi Cissé Cheikh Mahi ma ne ko dama laa soxla mu ànd ak man ci néegu biiram tëj néeg bi man ak moom ak yàlla rek Cheikh Mahi Cissé ma nettali ko gént gi mu ne ma la lii de amul sikki sàkk na bàyyi ijaasal na la ijaasa bu wér waaye jamono bii ñu tollul jamono këyit la dañ koy yaxal ndax wax rek doy nii man awma sikk ci ne bàyyi nga gis te bàyyi moo la ijaasal aw ma sikk ndax sama rakk li ñuy wax Moodu te mu nekk Mbuur taalibi Cheikh Maay la Cheikh Maay moo ko tarbiya bi mu bëggee tarbiya ma yebal ko kër Cheikh Nazir ba mu demee fekk Cheikh euh, bàyyi tukki ba mu euh, ba Baye tukkee ba mu demee yaa Alima yaayu Baye yaayu Baye Mbay moo ko jëlee kër Cheikh Nazir yóbbu ko kër Cheikh Maay Cheikh Maay tarbiya ko ndax waa kër Cheikh Maay xam nañ kan mooy Moodu Mbuur Cheikh Maay xam na ko maa ko waxee na ko man la magu Moodu Mbuur ca la ma waxee na ma wax nga dëgg mu ma nag Euh, ñëw fi après man ma jox la ijaasa yaa ngi dégg après ma jógee foofu jamono boobu ma lay wax noonu na la na la euh, Cheikh Nazir wax nañu ne fu ngeen dégg géewu sukkar da leen ci dem booba ñun amuñu amuñu woon dali dalifoor ba ma ko maa ngi fa de quatre-vingt-quinze laa dëkk dalifoor ba 2003 mooy juróom-ñetti ati yàlla gannaaw boobu nag yàlla dogal na man Cheikh Omar Ka dalifoor man maa ko dugal ci xëyu bi yóbbu ko Kaolack boo amu ijaasa ku bëgg a tarbiya rek dama lay paasal yóbbu la Kaolack ñu tarbiya la ma paasalaat la delloosi la mhm. soo amul foofa naan ma yóbbu la Ndofane ñu tarbiya la foofa mhm. booba mhm. ma da a taxawal faydu ci Dakar Dalifort Dalifort ba ma fay taxawal faydu booba sunna ba nekkoon Dalifort mooy sabar lañ daan tëgg sabar man daan naa gis nii ñuy tëgg sabar jàpp jigéen yóbbu ko ay ñaar fukki nit ak ñett di ko tëddee ci benn waxtu maa ko dindi Dalifort man maa dindi loolu Dalifort dañ daan agressé nit Dalifort Dalifort booba benn ñaari nit ñoo kër benn kër moo fa amoon courant mooy machine yu càmm mu nekk fii ci wetu autoroute bi kër yi am courant yëpp Dalifort machine yu càmm moo leen ko jox li may wax ni waa Dalifort ñoom xam nañ li may wax yàgg na 97 eh, bu ñu yàqal suñu waxtaan bi yaa ngi dégg léegi nag buñ biñ biñ biñ biñ defee loolu dali foor ma dëkk fa guddi bu jotaan dañ daan dëkk jëkk rek am ngelawu sikar ëpp booba daa daa daayira yi bëri ñu Dakar man ak Omar Ka ñuy topp ngelaw li topp ngelaw li topp ngelaw li topp ngalaw li ba mu fëlee ji Grand Yoff nekk kër pap buubu si kër baay buubu si fa la daayee fa la ba am ñu laaj leen ñu ne ñoom chaque jeudi dañuy def daayira léegi chaque jeudi mag ñooy ànd dem daayira kër paa bu si ba benn bés ma nettali ko paa buubu si gaa gént gi ma gént ci bàyyi mu jox ma ijaasa mu ne moom man dama ko dama lay jox ijaasa comme ma jox man ijaasa it laax lañ ma dama lay jox ijaasa comme biñ ma jox pour ma barkeeloo ko ko dëggu nga te xam naa ne bu daal ijaasa ne it laax la li ma lay ma lay li ma lay gum pré pré gu ma de ah, ah. ko am mhm. lu jiitu iddaa ci Cheikh Mahamad Nazir bi mhm. Cheikh Mahi Cissé mhm. Cheikh kii euh, euh, euh, kii Cheikh Mahi Cissé Cheikh Abdallah Cheikh Abdallah mhm. ah, ak Baye ak Baye ak Baye jox ma ko gàmmu gi ma njëkk a def Dalifort Cheikh Boubou Sy ko def ak daayiram loolu am na sama goro Mbaye Diagne fekkee na ko ak ak ak kii njaay Seydou Ndiaye Ndofane fekkee na ga guddi googu ak sama xarit yi ñoom njugandoo yi ak ñoom amee si la ñoom ñëpp ñu woon ci guddi gu kooku guddi googu laax lañ togg reer amuma woon xaalis sax laax lañ togg reer lañ togg reer mm. laa joxe woon ñu togg laax 17000 du ma ko fàtte mukk woon ñu ba ma góorgóorlu ba bàyyi ñaata ñaata laa ko jox xaw ma ñetti junni lañ ko jox xaw ma ñeenti junni lañ ko jox ci ci jamono boobu mu ànd ak mbooloom booba car rapide lañ indi woon moom daayiraam bi yaa ngi dégg yàlla dogal après ñu continuer noonu di continuer noonu continuer noonu loolu ma lay wax noonu 2001 la yàlla may dem di dem di dem di dem di dem dem ba commencé tarbiya nag. Mhm. ma commencé tarbiya Dalifort ba tey Dalifort Dalifort demagoo. gannaaw raay mhm. léegi nag 2001 2002 mhm. maa ngi Dalifort ba 2003. léegi nag ci laa tuxoo 2003 Dalifort dem gannaaw raay gannaaw raay nag fa la faydu bi yaatoo nag. gannaaw raay ba ma fay ñëw benn gàmm laa fa fekk mooy gàmm googu ñuy def ci jumaa ji. nga xam ne ñoom pa Babou Sarr ak ñoom ñooñu ñoo ko doon def magi magi magi magi ginnaaw daay yi paa yooyu ñoo ko doon def booba Babacar Thiam mooy gàmm bi Babacar Thiam daan def ak maam maam Amor Fatou Diallo gannaaw daay Pikine gannaaw daay Pikine mm-hmm. booba moom lañ doon def foofu waaye gannaaw man sama gàmm moo fa nekk ak ñaareelu gàmm ci la gàmm yi soo commencé tak tàkk nag mm-hmm. li may wax ni mu xaddami ginnaaw daay xam nañ ku mel ni Baye Ndioro Sène mm-hmm. ku mel ni Baye baay Baye Doudou Thiaré ku mel ni Baye As Ndiaye ku mel ni Baye Fodé Diakhaté ak ñeneen muqaddam yi nga xam ne fàttewuma leen waaye jotaay du ko may ñu tudd leen ñoom ñëpp ñooñu ñooñu fàttaliku nañ xam nañ sama jaar-jaar ndax ñooñu man maa leen njëkk nekk ci faydu bi maa leen njëkk nekk sëriñ maa leen njëkk nekk muqaddam yi baay ci ma am ci faydu bi ak itte ji ma ci am ñoom ñëpp ñoom ñu góorgóorlu ñoom it gën a yokk seen itte xam ne lu ne mën nañ ko am ci faydu bi yàlla dogal ñoom ñëpp ñu seen sëriñ ijaasaal leen ñu taxawal ay daayira taxawal gàmmu di taxawal gàmm ba tey seen gàmm yaa ngi wéy ba tey may wax ak yéen yàlla dogal dalifu ginnaaw raay googu mu ñëw fa ginnaaw raay ba ma fay ñëw booba loolu moom lañ booba lañ doon wax naan ragal du jéggi raay ragal ragal du jéggi raay booba dañ daan yeewu ginnaaw raay fekk ku ñu rendi ca raay bi tëral ko fa dem seen yow xale yu bëri bëri yoo xam ne buñu ma daan nettali seen jaar-jaar dama dama daan jàpp ci mu génn ñi am na si ab xale boo xam ne du ma ko fàtte mukk ba may nettali na ma lépp lu bon la ma daan def bàyyi naa ko ba mu des jaay yàmba <laughs> ay <laughs> wax nga musiba yow mii da ngay jaay yàmba wala sëñ bi dama ci laa xamee lu bëree bëree bëri mu ne allahu akbar mu a ma mu ne ma mu ne ma mu ne ma après banaa ko mu ne ma mën a ko ma la joxee ndigal nga bàyyi da nga ko bàyyi ma tey soo ma joxee ndigal tey tey laa koy bàyyi moom ko joxee ndigal keroog la ko baax donc man ginnaaw raay liggéey ma indi fa ay nit ginnaaw raay ma nekk fa 2003 euh, ba 2011 muy juróom-ñetti at encore xam nga 95 laa nekk Dalifort ba 2003 muy juróom-ñetti at ma jugee foofu dem ginnaaw raay ba juróom-ñetti juróom 2011 2003 ba 2011 muy juróom-ñetti at. ma taxoo ginnaaw raay juróomi 2011 ñëw Cité Fadia bu ma ñëwee Cité Fadia nekk fa 2011 ba 2019 ma jógee fa. mu juróom-ñetti at. 8 ans encore ba may taxaw di ba may taxaw nag ci lañ ma mel dañ maa wax ne ma yow xanaa xamoon ne am nga juróom-ñetti juróom-ñetti at. bi ngay taxaw Cité Fadia. bi may taxaw Cité Fadia man loolu ci laa ko xamee sax après man allah allahu akbar taxaw nga dëgg it hasard de te man xaw ma dara. yaa ngi dégg gàmm gi nga xam ne man maa ngi koy amal pour wax gaa yi ne leen man faydu bi dama cee yàgg sonn te dama ko bëgg te dama bëggul may ndam faydu bi ndax ni ku nekk ma koy raasaatu ci faydu bokkuma xale Dakar yi nga xam ne ay jàmbaar lañ lool waaye dafa man man ak ñoom bokkuñu ay jaar-jaar ndax am na si ñoo xam ne si seen jaar-jaar yi bokk ak man sama jaar-jaar yaa ngi dégg euh, de euh, Dalifort man tarbee naa fa ay nit ñu macha allah ñu bare bare bare bare la ma fa tarbiyee dali foofu gannaaw raay la la ma fa tarbiyee ci nit rek ëpp na ñaar téeméeri taalibe yoo xam ne dugal naa leen ci tariqa tijaan tarbiyee leen ëpp na ko ma jugee foofu ñëw nit ñi ñu ngi ma xamee ci affaire faj bi ba ma ñëwee daal fajaa fajaa fajaa laa fa ñëw xam nga télévision li muy wane bokkut ak gàmmu man sama gàmmu gi rek ren mooy nekk dix-neuvième euh, ren moo nekk non dix-huitième année gàmmu gi ren moo nekk dix-huitième année édition édition dix-huitième édition gàmmu kuy taxawal gàmmu dix-huitième ak édition nga xam ne kii tax 18 xaw ma 19 17 17 wala 18. 2003 ba 2020. 2003 la commencé woon ba 2020. 18 ans ah. 18eem année. 18eem année mais ñaari at nag laa ci lañ ko deful. mooy 2005 defuñu ko ak 2000 bi nii mooy at bii nii nga xam ne corona bee tax. mais lu dul loolu gàmm yi eh, lépp lu ci ëpp si sama poste bi laa koy financé gannaaw ak gannaaw ndimbal yàlla ak taalibe yi. loolu liggéeyal nañ ko faydu bi loolu jaar-jaar la ci ñoom ci faydu bi mhm. ijaasa bi ma laajoon ndax ijaasa bi dama ko denc wala dama ko liggéeyee mhm. ijaasa yi ma am gannaaw bu ma jógee foofu ma dem kër seexu xëy bi yaa ngi dégg gannaaw bu ma bàyyi ndax am naa ijaasa sama manasir ijaasa Cheikh Abdoulaye ijaasa Baye mhm. Cheikh yaa ngi dégg bàyyi boobu si juróom yëpp it laax leen bokkut ak ijaasa Thierno euh, Amath Ndiaye bi ma yegsee nekk këram foofu kër eh, eh, maa ngi koy nuyu di ko siyaara bu baax di ko ñaan yàlla yaa ngi dégg Thierno Mane Ndiaye ci Cheikhul Khayr ci Cheikhul Khayr boobu mu ngi dëkk parcelle mhm. eh, mu ngi dëkk parcelle dama fàtte unité bi xam ma vingt et un vingt et un xam ma ban unité daal mhm. fay dëkk parcelle ba ma fa yeggee moom it moom mu yaasal ma ci làmmiñam mhm. wax ma ne ma ijaasa yu ijaasa boobu nga am noonu yeesalaat lan lañ nañ la ko ma amaat ijaasa boobu parce que bàyyi ba muy nettali silsilaam dafa wax ne ma alaaji am na fukki silsila ak ñaar waaye dafa wax moom am na juróom fukki silsila yaa ngi dégg mooy juróom fukki ijaasa baay am na ko te man ñi ma ijaasa nii ñëpp ñooy kàngaar yi ponkali pays bi la mhm. kenn ci ñoom amul kuñ ci laam-laamee ak xam-xamam mhm. ak xam yàlla mhm. donc bàyyi man nag sama xam yàlla gi may doon nen dox noonu te mu rëccoon ma mooy bàyyi ñes ba muy waxtaan ak boppam dafa laaj boppam ne ko ndax yow xaarifu bi laa nga mu ne ko xaarif laa sama bàyyi moom a seddal na xaarif laa sama baay bàyyi moo ko seddal na xaarif ba ca ceex amal tiyaan ci foofu nga basé wu yaa ngi dégg léegi bàyyi euh, euh, ba muy dañ koy laaj ndax ndax majzub nga hmm. daf ne sama sama yetu majaazi bi yataqawluna fi xaalu saani hmm. ndax ndax ndax ki nga ndax xutbu euh, nga hmm. mu ne dégg naa majzub bi maa ngi jum ba muy laaj boppam ndax yow ci xutb bi ndax ci xutb bi nga bokk mu ne ko dégg naa majzub bi dima ko wax ca xaalu ñaareel yaa ngi dégg kon seede gi bàyyi giñ seede bàyyi na xaarif la bi muy waxtaan ak boppam loolu la indi comme dalil man ne pour ma wax ne xaarif la sama seede mooy Cheikh Mouhamad Nazir a ko seede ci kanam taawam ak bëkk néegam bëkk néegam a ngi dund ba tey pa taawam a àlaxira Cheikh Mahamad Nazir dem na àlaxira yal na yàlla bokk leen yërëm jégale leen xale leen aljana Cheikh Mahamad Nazir doomi Baye Niass nga xam ne moom la Baye Niass ëkkati woon jox ko maat bi jox ko école bi ne ko yow laa óolu ci sama école bi foofu la mudir bi jógee foofu la mudir bi jógee nga xam ne borom xam-xam la ci zahir ak ci baatin mudir mooy directeur ci mudir mooy directeur ci français mhm. borom xam-xam la ci zahir ak ci baatin man borom xam-xam moo ma tabax xaarifu mhm. billaa moo ma yar man ah. yaa ngi dégg làmbaatuwuma li may wax buñ foog na rek damaa neex xel di wax damaa jaar ci jaaruwaayu góor yi yaa ngi dégg fi góor yi xuus yëpp xuus naa fa ànd ak samay wàcci waay ci wàllu askan ay nit yàlla lañ ay wàllu yàlla lañ ay ay ay sëriñ lañ ba ma continuer nag dali fort ak ginnaawlaay ba yàlla dogal ma ñëw fajaa ma continuer di liggéeyal faydu bi gàmmu yi ma taxawal fajaa yëpp nit ñi xam nañ ko yàqulu ma dara si sama liggéey faj faj mii tey ma nekk nii yàlla dogal ko lu mu bon am naa ci ñaar fukki at ak ñett faj ñi gars yi dañuy léegi lañ léegi lañ ci jot rek waaye damay liggéey ci fay dugub yëpp dama daan faj nit ñi di leen ñaanal maa ngi noo 2010 non 2009 am na xale bu ñuy wax euh, bu xale bi du tudd turam sax ah, yaayam indi no indi woon ko ci man yàlla dogaloon ay jinne jàppoon ko mu dofoon yaayam loolu dugg na ci fu ne dugg na fa ak moom bi mu demee ba nga xam ne yàlla dogal na ci moom mënu koo faj mu indi ko ci man ba mu ko indee ci man ma ne ko sama kër ñetti fan fa ñetti fan ma dem Ndofane am fa juróomi fan am fa ñeenti fan dellusiwaat ba ma del ci mu am juróom-ñaari fan ci man bi ma dikkee après ci laa oo yaalam ne ko kaay mu ñëw ma defal ko li ma koy defal lépp mu normal mu wér ne na dem ñibbi ba mu bala ba may dem yaayam ne ma may naa la ko ay xam laa la àllaaxira na fi toog des fi toog ci sa kër gi nekkal la fi comme nga sa doom mu nekk sa doom yow ma may la ko ndax lii ma am ci moom mosuma ma ne ko waaye dénk naa la ko njëriñ lu ma waroon a amal na la ko amal yow léegi sama dénkaane nga yor ma ne ma waaw ma ne ko demal yàlla dogal bi mu bi bi euh, euh, euh, école ubbee mu yóbbu ko Malika ci benn daara foofu muqaddami baay bu ñuy wax Oustaz Ali bu baax la borom xam-xam bu màgg sax bu kawe nekk mu Thierno Alassane Deme yaakaar naa suma jumul yàlla dogal mu nekk borom xam kooku nekk borom xam mu yóbbu ko foofu après mbir dikkalaat ko fekk tàgguwu mu ñu yóbbu ko foofu après mbir yi dikkalaat ko mu wëraat sëriñ si dambe yàgg mu ne man daal man daal damaa doy waar rek waaye dama war a dellu mu ñëwee mu ne ma mu ne ah sëriñ bi man de sa ji laa la indilaat ma ne ko waa lu ci xew mu ne ma <clears throat> ah mbir yi de ñoo ko ñëwalaat mu ne ko waa lu xew ba ba mbir ko mu ne ma ah la ko la la ko la ko dalee ma ne ko daara ji mu ne ma daara Oustaz Ali laa ko yóbbu a ko yóbbu la ko affaire yi kiyaate ñoo ñëwalaatee ma ne ko da nga waroon a tàggu soo ma tàggu woon ñoom duñ ko duñ ko duñ ko fa fekk mm. waaye comme tàggu woo ma moo indi lii ma ne ko waa demal te waxuma daara ji dafa am dara daara ji amul benn problème xale bi moo amoon problème yaayam yóbbu ko fa yaa ngi dégg affaire dikkalaat ko yaay affaire yi dikkalaat ko fekk ma nga ma nga tombee ma nekk daara du daara ja xale bi du ñuy wax naan Cheikh Omar nee na léeg-léeg lii pour mu leer ndax jot nit ñi moom dañuy yàkkamti sos dagg vidéo partage waaw kay non man samay vidéo moom ma ko dagg ndax man li may wax yàlla hmm. yaa ngi dégg hmm. léegi ma ne ko hmm. du ma ko jox saafara du ma ko ñaanal du ma ko jox sangat du ma ko jox téere dellool xale bi ñi ko téye xam nañ ma man ndax ah, man jinne yi xam nañ ma waax a baax a baax wala laajee Omar Diop xam nañ ma man loolu beneen waxtaan la nga jégal ma ko waaw loolu nga jégal ma ko beneen affaire la yaa ngi dégg ndax ñoom xam nañ ma baax a baax a baax ma ne ko ñi ko téye xam nañ ma man duñ laal lu loo xam ne maa ko yilif après mu delloo ko 2010 mm-hmm. ba bis yàlla tey may wax yow nii xale bi waxuma sax ay yooyu du belaal waaye macha allah xale baa ngi nag sama daayira bi may yore man nekk na li fa nekk ginnaaw daay xale bi moo koy sikkar léegi. macha allah te loolu 2010 la. te man bu ma commencé di def émission à la télé. mu ngi nekk laa commencé def émission à la télé. kon nit ñi boo feeñee télé lañ lay xam. kon daal sa ijaasi li nga bëgg wax mooy yoroo ko toog ci yoroo ko tëj ko. non man ijaasi dama ko liggéey ba ñu ngi may wax ak yéen maa ngi tarbiya maa ngi maa ngi tarbiya man tam naa samp naa yi mu xadam sax mm-hmm. man samp naa yi mu xadam ndax man pays bi xam nañ ma mm-hmm. laa lamba man ku koo wax Cheikh Omar Diop du pays bàyyi bi xam nañ ma mm-hmm. sama xam-xam sama alal sama ittee sama góorgóorlu lépp man bàyyi laa ko jox addiya deux quatre-vingt-dix-sept laa jox sama bopp bàyyi addiya sa bopp sama bopp man ma ne man li des si sama dundu man 97 97 ma ne li des ci sama dund su ma jullee mu nangu ñu war ma koo fay tiyaaba na ko yàlla wiire ci compte baay suñ ma ooree mu nangu su ma ko yàlla waree jox na ko def mu compte ba man fi mu ne nii aw ma compte ma compte man su yàlla rek mu ma yërëm mais yaakaar ma fa ay tiyaaba yu ma fay fekk ndax may naa sama tiyaaba yi ba pare aw ma dara lu may xaar àllaaxira man dara dara dara dara dara dara lu dul yéen maa baax ak yàlla yaakaaruma ko foofu ndax soo jëlee sa poos yi li nga ci am nga may ko jeex xam nga loo yaakaar yàlla. Mm-hmm. ah looloo ma dal man aw ma dara lu yaakaar du du ma wirda ba xalaat ci sama bopp lépp lu ma def bàyyi laa ko def addiya. te 97 li ma wax de ñiy wax nag nañ seet seen bopp ba xam est-ce que loolu dal na leen ñu te te li ñuy xalaat nañ ko xalaat seen diggante ak yàlla. Mm-hmm. yaa ngi doon nekk sa sa xaj màkk nga defoon ak voilà ñi nga xam ne dañuy waxtaan ci yàlla laa wax de ñi nga xam ne dañuy waxtaan ci yàlla nga xam ne dañuy waxtaan di xee taalibe yi di leen yar nañ di vérifier waat seen bopp seen kóllëre ak seen sëriñ nga xool seen sëriñ li mu leen jaral ñu def ñu ñu xool wax ne bi qadri maa tuhibbu tanaalu amdaadu rek na na nga dëggoonul nga ama ngay amee ba waxaa ne nilhum wa zidhum bi qadri siddiqi kulli muridi wa bi qadri sawqi yàlla mayal sama taalib kenn ku ci nekk comme dëggum comme kenn ku ci ne boo gisee ay mayam mu éem la bu <laughs> la éem demal xool lan mooy dëggoom ndax Baye dëggu ni nga dëggoo lan lay tibbali Baye moom Baye moo maanoo noonu yaa ngi dégg man aj naa màkka ñaari yoon dem naa faas man nekkuma koo xam ni dama amul xitte ci yàlla dem naa faas keroog ba may dem faas di siyaare ji Cheikh Ahmad Tidiane Chérif maa ngi ànd ak Nasiru Ñang ak Cheikh nga xam ne Abdoulaye Niass yaa ngi dégg eh, maa ngi ànd ak Cheikh Mahamad Nasir Nasiru Ñang ma mm-hmm. leen doon nettali léegi ak Cheikh Abdoulaye doomu Cheikh Cheikh Mahamad Nasir ñoo ànd dem faas siyaare bi ma préparé pour ñu pour ñu dem aéroport ma teg sama saak ndax xaaral ma tàllal sama yaxi ndax suba ba léegi maa ngi tudd wir na su ma tëddee noonu jaaxaan teg saag bi ci laa këfee nelaw laa dégg ku ne ma ana Omar Diop ma naan mu ne ma kaay uyu uyu Ahmed Sukkari ji ba ma yeewoo ah, kon suñ siyaara bi dèjà nangu na ndax ñu ngi lay oo ca Ahmed Sukkari ji kon waxatuñ Cheikh Tidiane te Cheikh Tidiane mu ñu tax a jóg Cheikh Ahmed Tidiane ak Cheikh Ahmed Sukkari ji seen diggante war naa maa mat juróomi téeméeri kilomètre te bañ fay dem xamuñ fu mu féetee waaye yàlla lañu xam ne rek waaye dem nañ ba ci xabru Cheikh Ahmed Tukkeri ji muqaddami tijaan yu mag yëpp wër naa leen te faas ndax dama ko jëloon uniquement pour wër muqaddami tijaan yu mag dem nañ ci Kansuus yi dem nañ ci Ahmed Tukkeri ji dem nañ ci Nasif yi dem nañ ci muqaddam yu mag yi yal na yàlla yërëm leen radiyallaahu anhum yaa ngi dégg radiyallaahu anhum yal na leen yàlla yërëm yokk seen leen ñoom dem ci Cheikh na Ahmed Tidiane Seydi radiyallaahu anhu man def naa ko loolu yëpp ma jël ko def jël ko xaddiyee bàyyi maa ngi wax taalibe tijaan yi na leen hmm? ma xaddiyee tijaan yi na leen ak taalibe di leen ittiwoo di gurguru di dem paas lépp lu ma ñaan noonu te xabru Cheikh Ahmad Tidiane Chérif amul benn laxsa benn pepp boo xam ne yàlla warut ma ko nag nangu nangu ñaan nga ba ma gis ko njëkk li ma njëkk ñaan foofu mooy yàlla may ma doom du góor ba ma jugee faas guddi gi ma ànd ak sama soxna guddi googu lañ ma wax ne ma sa soxna am mën a doom ju góor guddi gi ma jugee Faas ñëw guddi googu lañ lañ ma wax ne ma sa soxna am na doom ju ëmb na doom ju góor jour bi muy juddu lañ ma wax na ma xale bi tey lay juddu ma yeey sama soxna na ko jugal mu yeew ma ne ko tey ngay wasin yaakaar naa li mos naa ko nettali suñ benn jotaay émission yaak ma ne ko tey ngay wasin mu ne ma dimbale ma docteur bi ne la la 15 bon mu ngi nekk le premier xaw ma la dégg ma ne ko waa ñoom jàmbaar lañ lool waaye mën nañoo wax yow léegi seen kàcce mën bañ demee ba boori timis biir bi yëngatu mu ne ma nañ dem hôpital ma ñu xool la mu ne man déedéet mu dimbale ma man mu ne ma dimbale ma man dem hôpital ma ne ko waaye comme yéen daal dafa sonal sa biir bi te du nga yëg benn bagage nañ dem ne ma ba ko sax fan bi xoolee ne ko ko ci sama doom ju te te paas laa ko ñaanee yeneen la yeneen yi ma ñaan yëpp yàlla wan ko nii kon maa ngi wax taalibe tijaan yi ne leen ngeen itteewoo di dem paas di dem di siyaare ci matière te bu ngeen demee ñaan di ñaanal maa ngi fàttaliku boobu Ablaye Wade wala jógee France ñëw wala ñëw première fois bi Macky Sall faloo ci mbiri Karim booba dëkk bi tàng ba ñaan bu Ablaye Wade dëkk ñëw dëkk bi tàng tàkk ma ñaan ca xabru ci matière ma ne maa ngi ñaan yàlla yow yàlla ci barke walu yi ca walu yi bi tëdd nga xam ne mooy xëy na wilaaya Ablaye Wade da nga noonu ñu war ne annoncé ne ba nga jógee France war a ñëw Sénégal bu ñëwee na mel ni dañ koo sotti ndox mu sedd na na mel ni galaas benn bruit bu ñu ko am Sénégal Sénégal bu fa yàlla mës a taal guerre bu fa bal mës a takk lii daal maa ko ñaan te xam nga seen waxtaan ñuy wax nag Abdoulaye Wade moom jiyee ne la nañ bàyyi coow lii nañ lii mën a ah li may am jàmm mën a ma danga man Sénégal dafa maa utile man ma da jugee fii dem màkk aji sama a bu njëkk mi aj ak farata pour matal sa ponk l'islam ba ma demee aj ca xab raw lu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam laa toog laa taxaw man yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa maa ngi ba ma ko siyaaraa nuyu ko ba def li ma war def yëpp ma ne ko nga seede ma ca kanam yàlla ne ak gii ajak farata la yàllaa ko moom ponk lislaam bu may matal la waaye gannaaw boo jaamoo yàlla ba pare yàlla danaa la bu ko nangoo danaa la fay pay googu mu may pay def naa ko haddiya ci sa soppi ba Cheikh Ibrahim Niass ca senegal seede ma ko lii defal laa def naa ko ca ëllëg sa se mooy le 2018 2019 ba ma ajijee ba ma ajijee waatee ma delluwaat ma delluwaat ca xabru yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam boobu maa ngi ajal sama papa moom yàlla dogutoon mu aji ma ne ko man moom yàlla na ko waliyu yàlla la woon borom xam-xam la woon te ma naa ko ajali ma dem ajali ko ba ma ko demee ajali ba pare ca ba ma ba ci rawda bi ma ne yonent bi seede ma sama bàyyi laay ajal aj gi moomu ko waaye ci am ak ku jëfal nit jëf baax yàlla dana la fay pay googa man cay am waxuma sama alali bàyyi ne sama aj ak bàyyi la waaye la ma ca yàllaay fay seede ma ci kanam yàlla ne def naa ko haddiya si seen soppe ba Cheikh Ibrahim Niass na ma ko defoon ci addiya yu njëkk ya seede ma ko ci kanam yàlla ma defaat ko noonu yaakaar naa ñiy dem màkk di xalaat lii ñu néew lañ de bu ñu demee foofu la ñuy lijjanti de seen la ñuy lijjanti ak seen i njaboot ak seen i doom ak seen i kii waaye man yàlla may na ma taw féex goo xam ne fu ma teew rek barab bu ñu bu ma teew man boo xam ne bu mu fa demee rek di ñaan yàlla mu leer na man yàlla dana nangu rek man sama xel bàyyi lay rek du du bàyyi ak njabootam gi bës bu set ma wàccee kaamil ñaanal yàlla njabootu baay bi muqaddami baay yi nañ góorgóorlu ci lii lañ ñun lii lañ xam. xajatu xajatu aswa yàlla dimbal na ma foog naa ko fukki yoon ak ñaar te yoon saa san def na képp koo xam ne tàllal nga sa loxo rek nuyu ko rek ne la wóor na jox nga yàlla loxo ndax mooy loxol ndeyjooru yàlla ci kaw suuf foog naa ko fukki yoon ak fukki yoon laa ko foog ci aj ju njëkk bi aj ak ñaareel gi foog naa ko juróomi yoon te yaakaar naa ñiy dem Makka ah, fóon na xajatu aswad ñu néew lañ ci jamono bii sax yàlla may na ma fóon naa xajatu aswad fukki yoon ak juróom ci sama dund lu ne ñaan naa ko fa yàlla te su yàlla dafa may tawfeex su ma su ma xañee dugg damay mel ni kuñ kole te ci diggante xajatu aswad ak buntu kaaba bi yoon saa sala ne foofu képp ku fa taxaw ñaan fa yàlla loo fa ñaan yàlla dana la ko nangul te ni mu la koy nangulee ni mu la koy ni mu la koy mayee ni nga ko ñaanee la la koy mayee foofu taxaw naa ay yoon ñaan fa yàlla yaa ngi dégg biir kaaba gi man yàlla may na ma sax dugg naa ci biir kaaba gi lu du jàng naa fa am xaw yoonu latif ndax kaaba gi boo xoolee lu ndaw loolu ñu wërngal boobu ñu wër noonu ca cosaan bi yàlla wàccee kaaba gi ca la bokk mas naa ko waxtaan ak benn étudiant bu nekk Màkka ma ne ko xam nga luy xikmatu ci yonantu mu bàyyi loolu ta mottaliw ko mënu ma déedéet ndax xikma yàlla ma koy waman yutin xikma eh, eh, eh, ma yutin xikma xayran kasira xaw ma waaw xayran kasira yàlla wax na ko euh, euh, laaya ja mu ne yàlla mooy jox xikma ku ko neex dama koy fàtte waaye képp koo xam ne yàlla jox na la xikma euh, na nga xam ne yàlla jox na la xiw bu bëri wa maa yuzakkaru ila ila ulil albaab fa la aaya ja jeexee yaa ngi dégg rek xam naa ni mën naa dina ñëw si sama kanam sama xel yaa ngi dégg étudiant bi yaa ngi dégg voilà aaya ji laay fàttaliku nii sax ñu wax naan yuutil xikma man yashaaw xam naa dina dina ñëw mm-hmm. mu ngi ñëw kon benn benn est-ce yaa ngi dégg étudiant bi ma ne ko kaaba gi boo gisee bu ñu koy tabaxaat ñu xaaj ko àggalewuñ ko ma ne ko dafa am ñoo xam ne yàlla daf leen boole ñu war a dugg ci kaaba gi te addina bi toll na foo xam ne fi ne nii buur yi seen bakkan yi yëkkati ko ne yëkkati ko koo xam ne ku mel ni ñoom rek wala ku njortu ci yow ak yëkkatiku rek duñ la ubbil kaaba bi. président yi prince yi prince yi rek lañ koy tijjil. lañuy tijjil kaaba bi te yàlla nag xam ne am na ay wëli yooyu yoo xam ne foofu ñu dugg ci kaaba bi. ay boromi sagar lañuy boromi sagar lañuy doon te nit ñi duñ ci mën dara nag kattan lañ yàlla. ma ne ko moo tax mu xaaj ko léegi nag mooy lu ndaw loolu ñu wër nga wër nga loolu képp ku ci dugg xamal ne dugg nga ci biir kaaba gi. la ma aj màkk yëpp bis yi ma nekk màkk yëpp bés bu set danaa fa dugg jàng fa am xaw yu laajim fa sama laajim tariqo tijaan ak li muy métti métti ak li muy xat-xat def naa ko foofu noonu yaa ngi dégg lii yàlla may na ma chance ci cadre gi ma def ko. alhamdulilah donc man dafa am lu ma diine jaral dafa am lu ma lislaam jaral du wax rek. Mhm. dafa am lislaam dafa wax la ak jëf. waaw ci jar-jar boobu nga yàq sax na lislaam daf la koo jaral faydu daf la koo jaral. Mhm. Euh, daanako say jaar-jaar la ñuy waxtaan. Mhm. waaye bëgg naa ñuy bëmbëstal ci cinq minutes. juste nga nga nga bañ a dépenser cinq minutes yi. ci temps yi dañoo gis nga euh, am foo dugg. foo xam ne daanaka mën na wax ne ña duggoon génn nañ wala bokk yombul ña fa dugg muy ngay xaw ma défi laa koy tuddee xaw ma yaa may corriger daal ci sa kàddu yow daal yaay seet noo koy tuddee waaye man défi laa ko tuddee. waaw gàgganti la rek gàgganti la rek. moo tax man su ma jëmee nga gàgganti ma. Mm-hmm. sa mission la du sama mission sa taxawaay la du sama taxawaay. Mm-hmm. daanaka man défi laa koy tuddee nga lancé ko yenn muqaddam ak yenn taalibe yi. Mm-hmm. daanaka nga woo ñëpp dañ leen na leen dellu ci bàyyi. bàyyiloo ma kenn sama xadam bàyyiloo ma kenn sa mm. toppuwaay mm. waaye daal na leen xam ne kenn du bàyyi mm. mu am sorte yoo xam ne daf nga ko temps yi mu jur nag coow lu bëri coow laa koy tuddee ma nit yow boo noo koy tuddee mi laa koy tuddee mu jur lu bëri ci yenn fànn yi ak yenn kër yi ak yenn muqaddam ak yenn taalibe yi bëggoon naa loolu nga bëmbastal ma ci quelques cinq loo xam ne lu waral loolu lu waral nga jug ak waxtu wi ak at mi ak période bi lu waral nga jug rek woo taalibe yi ci balaa may dugg ci loolu damay àggale sama ijaase yi mm-hmm. waaw waaw waaw jeexul waaye mënut a jeex. ndax bu ma demee ci ci ci kër Thierno Amady dama koy dem foofu laa jeexle. waaw ah, kër Thierno Amady fële ca fële ca Cheikhul Xeer yi. ci Cheikhul Xeer yi. gannaaw bi yàlla dogal ñu dem dem dem ba gannaaw gi. Mhm. am ay ute yu am yoo xam ne ute taalibe la. Mhm. yaa ngi dégg mhm. ma bàyyi foofu noonu. dem ci Cheikhul Xeer yi. ba ma demee ci Cheikhul Xeer yi. waxtaan ak moom. da ko man nag damaa ñëw comme ci sa njaboot laa bokk. man muqaddam laa. am ay taalibe yu nekk ak man ànd ak man ma ñëwoon ànd ak Cheikh Thierno Amane Ndiaye ñun nekkoon fa maag moom gannaaw bi man dem naa ba daal amat gisu amat ma gis-gis daal ànd ak moom mhm. am naa gis-gisu daal mhm. ñëw ci yow direct mhm. yaa ngi dégg am naa gis-gisu ñëw ci yow direct daal pour man ma jox ko ci yow sa nekk sama xadam nga esalal ma sama ijaase yi ma am sama ijaase yëpp nga esalal ma ko Cheikh xëy na ma macha allah esalal naa la waaw ma ne ko man yow laa bëgg direct parce que man bugguma intermédiaire taalibe yi am na ay réeróo yu amoon yoo xam ne gannaaw yàlla dind na lépp ba mu set léegi maa moom jàmm rek la seq seq gis-gis rek ndax taalibe des fois da nga am yoo xam ne yaa sa bopp ak gannaaw gi yow it nga dem rek la la la la la la doy nekk ku baax nag koo xam ne jàmbaar la yaa ngi dégg mu nekk ku koo xam ne jàmbaar la waxu euh, waxewu ma ko ci beneen fànn quoi pour wax sama jaar jaar la laa ci nam waaw jaar jaar bi yaa ngi dégg loolu euh, am naa ko ci seexu xeer moom moom mu ijaasalaat ma xalaat sama ma nettali ko sama ijaasa yi ma am mm-hmm. mu saxalaatal ma sa ijaasa mm-hmm. moom seexu xëy mm-hmm. yaa ngi dégg kon man itti laa am ci lii ma ne def ma ko rek pour passe temps waaw nga baras si ko dugg ci yaa ngi dégg léegi nag utee boobu ngaa wax loolu nga wax noonu loolu correction la ndax bàyyi boo dëggoo ci moom moom bàyyi moo lay jox ay mbiram moo lay xamal bàyyi dafa wax ci benn waxtaan ne soo demee ba sama teewaay ak ma fàddu em ci yow mooy loolu tegtalu tegtalu dafay tegtale dëggu mhm. ak ixlaas mhm. kon man yàlla dimbal na ma mhm. mu ne te loolu boo gisee bàyyi di ko wax loolu lu mu ci namu mooy loolu maqaama bu ñuy egg la góorgóorlu leen ba egg ci xam ne man fàdduwuma est-ce que yaa ngi dégg man fàdduwuma la ci la ci bëgg la ci namu man fàdduwuma am na ñoo xam ne bàyyi wax na ko mu de ñu way ñi nga xam ne dañoo way ñoom gisuñu lu lu saayiri ma saayiri rek lañ gis <laughs> ñoom gisuñu dëgg-dëgg ji waaye ku dem ma nga xam ne gis nga dëgg-dëgg ji ma tax ñu bëri dañuy jël ay maharifa di ko taawilee ci ay seeni xalaat yi bopp naan li mooy maharifa di xamut yàlla ma ngay wax ci xaat li muy waxee dégg-dégg xaam la mais dama leen di dama sama leen dégloo damay damay damay xam ne daal dëgg-dëgg am na lu des daal waaw lu la lu la léegi nag lu poussé jamono ji waaw question laa bëgg nga nga tontu ma ci ma dem ba yàlla defa ma tawfiix mhm. teewaayu bàyyi ak fàddu bàyyi en ci man ndax bàyyi ko digee te loolu yàlla koy maye mhm. man dem naa ba àgg ci xam ne bàyyi jugu fi loolu kiiraay luy dañ la kiiraayal mu ngi mel ne nit ñi nga xam ne xamuñu yàlla yàlla dimbale leen ñu bàyyi ba seen kiiraay yàlla rek moo fi nekk ñu xam ko loolu la ma yàlla defal ci bàyyi man damaa dem ba xam man saayir ak baatin yàlla dimbal ma dina ma ki kiiraay loolu xam naa ko mais loolu mënoo koo wax léegi nii boo ko waxee léegi dañ naan day oote wala day dafa a jàngale ne bàyyi ñas ay taalibeem sëñ bi am nañ lu ne mu xaddami bàyyi yi fi nekk nii taalibe bàyyi yi nekk fii nii bàyyi nee na xut buy buñ gëlëmee ma leen di maa leen di gindi ñu bàyyi wax na ko kon xam nga kooku fa mu nekk nekkut nuñ koo woowee benn xew xamut bàyyi lu mu doon kon taalibe bàyyi bàyyi nas nee na amuma ay taalibe ay sëriñ laa am kon maqaama bu waaye mën a am na xam ne xelloo na ko ci bàyyi waaye buum la tax a tarxiis soo waxee leneen lu dul ak taalibe rek da bu boobaa dangay indi problème am na mag ñoo xam ne te bàyyi dafa wax ne maxrifa ki ko am moom day noppi noppeem gu métti googu dafay tegtale xam yàlla am gu kawe gi est-ce que yaa donc ma gis yeneen feeñuwaay yu am léegi te amutoon xewtoon ci pays bi du na pays bi toog ci ay mbedd ak télé di wax lañ daan wax ci biir néeg yi mais loolu boo ci àndee ba yàlla mëni sa bët nit day juum nit day juum yàlla lu mu tuddee doomu aadama insaan insaan mooy koy fàtte koy juum waaw léegi nag yow dañoo def seen bopp ay yàlla dañoo jomale seen bopp njumte te man damay juum man damay juum di xam nga man du baqale laa taalibe bàyyi moo gën sax nekk xut bi saman ndax mu xa mu xa euh, xutbaaneetu euh, xale yi bàyyi bàyyi wax naa imaam Hasan Cissé xutbaaneetu ko kon li imaam li imaam liggéey na gannaaw bi imaam dem na ba ne yàlla may na ko ci laxasa benn gendee ko da ci wàccee alxuraan egg na ci maqaama ba nga xam ne nee na lu toq coqalam bi yàlla def ko moom kersey ñaan yàlla moom imaam Hasan Cissé mm-hmm. te bàyyi la sëriñ bi taalibe bàyyi lañ xamul mooy lan taalibe Baay la boo ko nekkee mag oote lu la neex bàyyi wax na yonent bi saa sallam waxal lu la neex yonent bi loo ko yàlla may na yonent bi jëmmam ja turam ya meloom ya xam-xamam ba yaaxaaxaat yu buru boobu yotoon gën a ko may waaye waxal ci yonent bi lu ne ba mu des ma yàlla ne mooy yàlla te pourtant am na ñuy wax ne pourtant am na ñuy wax ne gannaaw Baay bàyyi wax na ne gannaaw si gannaaw yàlla sama xalifa Seydi Haliil Sisi te ñoom dañuy oot ak yonent ci gannaaw baay te bàyyi ne bul wax ne yonent bi mooy yàlla. ak ponk li fi newoon te te newoon te woon bàyyi yonent bi bàyyi na na bàyyi loo mën a wax ci yonent bi d'accord nañ ba mu des nga ne mooy yàlla. te ba bàyyi waxee ne yàlla gan yàlla mooy sama kalifa yaa ngi dégg sama gannaaw. na Seydi Aliou Cissé laa jël mu nekk sama xalifa doom yi ak sama mu nekk sama ta sëriñ doom ak sama sëriñ tànn mooy sama xalifa sama ginnaaw ñoom yàlla jooju noonu dañ koo jël jox ko seen yonentu boobu ñuy sa waaw c'est que man dama bëgg mu leer bokkut ak yow say say propre direct yi ngay def man dama bëgg nit ñi xam ne en fait su ma déggee ci li ngay mooy que ne yow li ngay xeex mooy que ne ñi nga xam ne jàpp na ne bàyyi euh, fàddu na bàyyi nekkutu fi yow loolu ngay weddee gars yi ñi nga xam ne neen bàyyi nekkutu fi donc il faut am ku fi wuutu bàyyi yow dangaa daq loolu saxal na bàyyi jóge gu fi bàyyi mi ngi fi ba tey hmm. te képp koo xam ne yaa ngi wootee ak xilaaf wala yaa ngi woote leen na nga jàpp ne yow ak Cheikh Omar Diouf mi toog yéen a yam képp ci taalibe Baye ngeen ñoom taalibe Baye laa leen jàppee mhm. man avant moom defoon naa leen lañ doon wax mhm. booba kiiraay yi dañut mhm. ngay xam man sama kiiraay loolu sañ naa ko wax ndax gis naa moom dafay wax ne Baye dafay wax ne marchement foo xaya ñii yox yëpp dañ cee njort rek ñoom ñëpp kenn ci ñoom amu ci certitude bu leer nag ki ñuy oote ne moom la est-ce que moom la même bu fekkee nag même bu fekkee gars yi ne Baye am na xalifa waaw lu tax ñu jombale dañoo gis beneen dëkk wër ci ci serment yi wala dañu feeñ waaye boo xamee day tegtale ne kii xel la woon ngoon moom wala yàlla dafa jom ci moom saahir ak baatin bu gàddu ko yonent yàlla Suleymaan gàddu wutoon xilaaf ak yàlla gi ci saahir ak ci baatin ah waaw doomi bàyyi bu bàyyi tànn muy waliyu yàlla da xalifa yàlla lépp mbooleem lu ñuy tegtale ci xam-xam mu nga ak moom ba ci tafsiru bàyyi Qur'an ñi ñuy wax ñëw ñëpp amu ci kenn ku ci mën a firi juróom-ñaari fa ñaari saari alquran yu moo yu moo ko ñu ko ci saahir ak ci baatin ko indi maanaa yëpp ci luxa te xalifa yàlla ci jamono dafay mate ci mbéy pan boo gisee ñuy wax daan xalifa yàlla ñàkk jàng ci boppam sax sunna la ci moom yonent lañ ci nam gannaaw yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mënuñ ma indi ci taarixu àddina xalif koo xam ne borom xam-xam la boo xam ne euh, euh, xalifa yàlla la woon jàngut mu tontu mboolem masala yi laaj yi nañ ma ci indil benn benn benn gannaaw yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam te xam li ñuy wax boo gisee ñu naan nekk xalifa yàlla ci kaw suuf mën naa bañ a jàng yonentu lañ ci namm mm-hmm. ndax yonentu yàlla masaa salaam moom la ñuy wax nabiyil ummi yi mm-hmm. yonentu boo xam ne yu nabbi yu la ba pare ummi yi la jàngul kooku yonentu rek moo ko jago à part yonentu yàlla salaam képp ku ku mës dund ci yonent ci àddina mm-hmm. ku dul Cheikh Tidiane di bàyyi gàtt nga loolu dafa war a leer ñu xam ko kon ñii am na ci ñoo xam ne tey buñ leen laajee ñu daanu. Hmm, kon daal yow da nga leen a woo na ñëw leen. man dama xam ne ñoom ay muqaddam yu baax lañ ay ñu góorgóorlu lañ ay ñu dëggu lañ. waaye daal na leen dellu ci bàyyi ñu góorgóorlu lañ dëggu lañ. Hmm. waaye duñ xalifa yàlla. parce que yàlla xilaafaam gi benn xilaafa la dafa am li ñuy wax xilaafa xalqiyan ak xilaafa xaqiyan. Hmm. yaa ngi dégg xilaafa xalqiyan ci yàlla ñu ko daan doon nañ tey moot moomu di ko puusante di ko dox toxal ñooñu avant bàyyi la. ndénkaane la woon ndénkaane la woon mu ngi mel ni yonent avant salaam ay yonent yi loolu xilaafa xaq loolu xilaafa xaqi maanaam dañ daan doon mbóot mi ci ci ci ci majaasiyan dañ daan dañ ay transporteur la la ñu woon la la yi xàmmeewu léegi bu ñu transporté nubuwa ba egg ci yonent bi saa wàcc waaye mu jot mu wàcc dafa jeex. ak yonent jeex na jeex. dootul ñëw maa kaana Muhammadin abaa ahadin min rijaalikum walaakin rasuulallaahi wa xaatama nabiyyiin yàlla Alxuraan na ko wax te yonent bi muy wax du yonent saahir bi baatin bi lay wax. Mm-hmm. ndax bu saahir bi moo jur Abdoulaye Ibrahima ak Hachim mooy seen te bañ gi yàlla bañ ab yonantu gannaaw moo waral mu génnee ñu génn àddina ci seen fukki weer ak juróom-ñaar kenn ci ñoom fere ci namp parce que bu mu màggoon rek da ay yonantu yonante yi jur yonante yi yonante yooyu jur yonante wali yi kon Baay ay doomam mhm. bu fekkee ci maanaa rek la ñuy aw ak ci taarix ak ci sëñ ak ci sunna mhm. mais sunna Baay mooy ma papa Mahi moo war a doon xalifa ci ci sunna ci saahir ak ci mhm. nekkoon baayam da Daawuda ibnu Suley euh, Suleymaan ibnu Daawuda Suleymaan ibnu Daawuda mais baayam li nekkoon ab yonent moo tax est-ce que ma dégg yonent yi yonent yàlla Ibrahima euh, Ismaahila yonent la Ibrahima moo nekkoon baayam. da nga ko décoré wala da nga ko muté. dama ko muté rek. ah d'accord waaw. yaa ngi dégg moo nekkoon baayam. Mhm. Eh, kii yonent Yàlla Ismaïla ba eh, eh, yonent Yàlla Ibrahima ne kon bàyyam kon Baye Niass bu fekkee ci ci la sunna la ñuy jaar kon Baye Baye bu dee wali yu la dëgg-dëgg ay doom ay hmm? nag yonent yi ñoo kon loolu leer na kon loolu leer na ñuy jël lee di ko di ko def ci seen xalaati bopp yooyu caaxaan yooyu hmm. toog di jël ay mbir naan feeñ waaye bi feeñ na ko lii def na ko kon kon moo war a mbir mi moom la war a doon sa bàyyi fi bàyyi fi taarix bàyyi fi sunna sunna leer ak yàlla waaye bu fekkee affaire bi dañ koy doonante kay muy continuer xanaa Cheikh Maye mu ci gën a yey waaw loolu leer na loolu leer na dañ ci dikk ak yow say propre waxtaan say direct yi ngay faral di def loolu wax rek pour nit ñi xam ne kii wax nekkul kuy làmbaatu waaw émission bi daal jaar-jaar la noonu maa bëggoon nga bëmbëstal ci loolu voilà léegi nag tax ma ci tegg sama tànk xanaa ma jot ndigal ñu baal ma ba waaye feek maa ngi dund nit ñi danañ xam ne Baye Niass mooy dëgg te Baye duñ ko doon feeñwaay bi mu feeñ feeñwaay bi mu feeñ moo tax kenn du ko doon mooy watuwaat fii de kon xala ma ko lokk na ko ngi mi ngi insisté fii de damaa nekk damaa nekk damaa nekk may ma tuuti ba ma pare dama nekk émission ni may ba ma pare téel ma wote bi est-ce que mhm. loolu moo tax nit ñi dafa baax ñu xam feek maa ngi dund mhm. dinaa liggéey góor góorlu te xam nañ ne man ba doom itti laa de xam nañ ne sama xalal faydu du ko fekkee xadara jumaa bii paase fii gis nañ la fa nekk ci mbooloo la fa nekk gis nañ taxawaay ba ma ci am itte jëme ci am loolu la ma bàyyi ña jaral man du ma jëkk cofantu waxantuwuma damaa danaa xee taalibe bàyyi ñu xeew ñu dellu ci bàyyi lu xam ne bàyyi ñes du musiba pour dégg nga seytaane bu la jàppee bu amul ndimbalal yàlla hmm. képp ku la oo ci kaay ci yàlla sax noonu lay doon sëñ bi kaay jàpp ci bàyyi kaay ànd ak nga ne yow sama noon sama noon nga kaay yow nga ne bàyyi nga bëgg doomi bàyyi nga bëgg taalibe bàyyi nga tarbiya nga téere kee moom leneen la mën na la déedéet kaay ñu ànd ci yàlla kaay ñu ànd ci bàyyi nga ne yow yaay sama première noonu te yow li nga sukkandiku yëpp ay njortu la sunna su leer nañ la ñu nii yonent yi ñoo jur yonent yi jur na ay doomam ay waay waay lu ñu wuti ci moom nañ ko wuti ci doomam te yàlla tax xanaa lii kay yonent yi ñoo jël yonent yi wala yi ñoo jël wala yi yow wala yi ba nga topp nag wóori ci àll ba ay wax ngay jàmm wala yàlla ngay jàmm sëñ bi bàyyi jàngale na lu ne bàyyi jàngale na Abdoulaye ba waaja jeexoon ca yàlla ba dem ci wuti Abdoulaye mhm. ba mu dem fekk mandikat mu jox ko boppam mhm. fekk ka ko taxoon a du gis ko mhm. gaa yi tegtal ko koo xam ne du moom mu dem ci moom rek jébbal ko boppam te yàlla tax yàlla di def dogal dogal ba ka ko taxoon a jóg génn àddina ñu ne nañ xool ci baatin kan moo war a doon maqaama sëriñ bi ñu ne am na fi ab waay bu ñëwoon fii te yàlla rek tax ñëw mu ñëw liggéeyal ab manikat nañ ko ooy mu ñëw doonu sëriñ bi parce que kii maqaamam bi kii rek ko attan te taalibeem yaa ngi fa kon gis nga bàyyi mu ne moom sëriñ taalibe bi su demee ci sëriñ bu fekkee sëriñ bu mat ah ñoom dëkku taalibe bi dana jëriñu ci sëriñ bi fekk man fekk commandé baax na il faut ñu dagg émission fii ba beneen yoon. waaw léegi nag loolu laay loolu ah. laay defal naa rek ndax dëggu taaliba bi. waaw donc kon buñ buñ balaa ñuy jóg di. Mhm. jëggaani. Mhm. day fekk suñ dëkk ñàkk te ñàkk a tëgg. Mhm. kiy jëggaani day fekk dëkkam dëggut balaa ñu naan waaw mu ngi noonu kon même buñ demee fële feefa boo fa demee nekk suñu dëgg mën nañu fa amal njëriñ déedéet ngay wëri day fekk li ngay wëri dafa ne fa nga fa nga de. ndax kat dem du gàddaay ba muy gàddaay dafa fekk fa mu ne woon amu fa la mu soxla woon waaye li ñuy wëri yëpp ma nga bëgg na li ñu wane mu ci doomi bàyyi lan la ñu wute ci xàll bi muqaddam yi nañ xam ne muqaddam lañ nañ góorgóorlu ci yàlla te seen ndëggu lu leen yàlla feeñoo ci xam-xam nañ xam ne taraanga pays bi la taraanga pays bi la waaye du moom mbir mi de du njàmbar ndax bàyyi na nee na soo demee ba góorgóorlu ba àgg ci maqaamaa sama teewaay ak sama fàddu am ci yow mm. mu ne loolu tegte lu du dëgg ak ixlaas mm. bu fekkee am na beneen laaj bu fekkee fii nga ko yemale tamit ba tey baax man kay fii laa fii laa ko bëgg a yemale. ndax euh, dafa dafa bokkut ak yow émission yi ngay def temps yi ci wàllum euh, xilaafa geeg euh, li ci nekk ci. ah man maa ngi man maa ngi. voilà loolu loolu laa doon bañ nag loolu loolu ah, laa doon bañ. waaye waaye nangu nanguloo ma ko waaye nag yaay yaay. sëriñ bi gis nga wàllu paj li ma nekk nii. waaw ci wàllu paj bi. Mm. tey nañ laaj. parce que bi may dugal vidéo bi damaa def euh, ñi ñi taxaw ñi ngi gis ne jaar jaari Cheikh Omar Diop laay bind. waaw dëgg la waaw moom mooy dëgg sax man maa ngi jégalu ci loolu. waaw donc bëgguma loolu baax na sax ñu xam. lu tax may wax ma nekk nii. Mm-hmm. Mm-hmm. ndax nekk naa ci waaye bi ma ci yàlla fësalee ma bokk ci ñuy feeñ ci télé yi. Mm-hmm. dama ci taxaw taxawaay boo xam ne. joxe ci ay exemple yoo xam ne. wan sëriñ si. ne leen mën ngeen egg ci fii. joxoñ leen ay joxoñ yoo xam ne man damaa taxaw foofa ne leen ñetti leen mën ñoom xam nañ li may wax am na sëriñ yu bëri tey ci wàllu faj mhm. seen góorgóorlu ak pas-pas bi ñu am ci paj mi mhm. xam naa ne bokk naa si seen ay référence yi ñoo xam ne man danaa leen di jox ay ay repère mhm. ndax def ay boutique ci dëkk bi joxe ay emploi di jàngalee nekk daa nekk ci daara ji teg loolu nga bokk ci dëkk bi ci jaar-jaar yi la ci jaar-jaar yi la yaa ngi dégg faj mi teg ko ci moderniser ko lasaraar bi nga xam ne moo leen doon jël sëriñ ñu koy deexal ay cent ay deux cent ñu ma ba góorgóorlu ba lu nawle mu ne si wala mu seen ñëpp tey waaw li amul kenn ku leen di ku leen oto bu li gars yi naan Tyson moo tax euh, mbër Tyson moo tax mbër mbëri mbëri xeew uh-huh. waaye man xam naa ne ci sama jeunesse sama jeunesse sama génération hmm. xam naa ne man maa tax bokk naa ci ñi tax hmm. euh, gaa yu bëri xeew am ndax man ñu bokk doon di def daayira di def ay ki yëpp hmm. tey ñu ngi ci yëngatu ci faj bi ndax xam naa leen te xam naa fa ma ca toll ci ñoom donc loolu boo gisee ma def ko tey nit yi ndakaaru yi boo fi nekkee seen biir mm-hmm. li ñu lay def pour nga am xel wala ñu gëm la wala ñu fonk la mm-hmm. mooy dañuy gis ay bagage ñoom dañu lay jaay ay titre ay kër yi rafet mm-hmm. ay oto yi rafet ay dañ la koy jaay te ñun suñ alal du loolu suñu alal yàlla la waaye loolu ñoom mënuñ koo xam pour nga wan leen ne àdduna ji suñ cëriñ may nañu ko àllaaxira ji ci jëm suñ cëriñ may nañu ko nga wan leen àdduna yi bañ gis ko nga xam ne lii du suñ toxla ci daara amuñ toxla ci loolu taluñ ko sax yaa ngi dégg liñ tal mooy yàlla bëgg ba gis na yow àddina am ko tëwu la est-ce leen ko bañ gis ne àddina am ko tëwu ndax ñun li may wax man ñu may ñi ma xam-xam nañ ko kon nañ xam ne man ay mbiri àddina du sama ité donte yàlla seetaanu ma ci maa ngi ciy sant yàlla bu baax ndax sama bàyyi dafa ma bàyyi ay secret tey fi mu ne nii sëriñ yëpp am nañ crise lasaraar tey fi mu ne nii seen lasaraar dañ leen coupé tam lasaraar yi gars yu bëri dañoo coupé seen lasaraar yi mënatu ñoo ñaan mu nangu seen lasaraar yi doxatut ñu bëri li may wax ne xam naa waaw loolu tamit nga baal waaye bokk si jaar-jaar yi. bokk si jaar-jaar dox na waaye waaye man moom. loolu bokk si jaar-jaar yi waaye man moom sant yàlla. loolu loolu bokkul ah, seen la dox seen la waaye man damay sant yàlla. waaw loolu bokkul ci émission am na am na ñoo xam ko waxee nag. waaw waaye damay lu xamal ne. ijaaba mhm. dañ koy sàkku ndax man ñaan naay yàlla fukki at yi yàlla di ñaan yàlla ijaaba pour suma ma ñaanee yàlla mu nangu moo tax su crise amee ah, yàlla bokk mbooloo ma ci kon seppi nañ ci kon daal bàyyi bàyyi ma tëj émission ba donc kon maa ngi gërëm ñëpp <laughs> di leen sant di leen jaar-jaar ci Omar Diop faj bii ma nekk nii mhm. di ko faj mhm. man bokk naa ci ñuy faj hépatite B mhm. te lu tëla dem naa ba yàlla xamal ma hépatite B lu tax mu të tubaab yi li tax mu nekk problème tubaab bi ndax baatin la baatin la moo tax tubaab bi amuñ accès côté baatin moo tax ku ko soo demul ci sëriñ boole ko faju olof boo sàggantuwul mu lor la man xam naa loolu moo tax ñu ma ci am résultat ñu bëri foofu laa foofu laa jaaree ba danaa leen faj ci plante yi de mais na yeneen secret yu boole yoo xam ne yàlla moo ko xamal moo tax mën ci am résultat moo tax am na ay hépatologue yoo xam ne damay défier ak ñoom te damay am ndam ci seen ci seen ci sama ay patient jërëjëf jërëjëf jabet noonu li tax mu tëggaay yi am na ci côté baatin boo xam ne da caa laxasu am naa ci sens cancer yàlla may na ma sens mhm. faj naa ko mhm. donc man faj bi mhm. am naa ci fu ma ci toll ci niveau ci àddina actuellement man bokk naa ci ñi nga xam ne tey Sénégal bu ñu doon ut solution ci wàllu médecine traditionnelle mën naa am lu ma leen jox comme solution wala feuille de route ma leen tegal ndax expérience bi ma ci am ak résultat yu baax ma fiyaa ko te yi lay wax lu concret la résultat yaa ngi fii seen ay seen yëpp man ko am donc kon man macha allah yàlla defal la ma sutura mhm. ci sama jaar-jaar mhm. euh, maa ngi jéggalu nag nit ci amee ay baat yoo xam ne mhm. ay baatu baati xaabaa xaabaabal la <laughs> ah kuñ laaj la <laughs> laaj laaj xam ne te man dama xam ne ba ma laajee li ma yëg rek laay wax waaw awma ci benn problème nag jubluwuma ci lor kenn tamit wala ŋàññi kenn waaye dama ci jublu kii wax fan la aw ak lan la jaar ngeen bàyyi xel ci lii ma wax fii ngeen seet seen bopp ba xam est-ce jaar ngeen ci ndax dew wax diw sàngam nii la mel ak ak nii laa mel soxlawut xam nga lan moo am solo ñu xool li nga def nit melut ni mu wax melut niñ ko waxal ma nga mel nam def lam def lam def noonu la mel si yaa ngi dégg mm-hmm. moo jëf mu ëpp solo wax wax nag baax na Mm-hmm. maa ngi leen di gërëm leen sant bu baax mm-hmm. di jéggalu bu baax nag mm-hmm. sant yàlla jul ci yonent bi di leen wax ne yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi def ko ci ñooñu réew mi def ko ci këri diine yi Sénégal nawet bi yàlla na ko yàlla xeggale ci jàmm yàlla na yàlla mosuñu ci bépp musiba bu xew ci nawet bu xew ci nawet ak ndox yàlla na yàlla fanqal ko ci réew mi fanqal ko ci réew mi yàlla na def mu nekk nawetu jàmm lépp luñ ci am ci ngóor gi yàlla na yàlla na yàlla boole ñu fekk ay naweti naweti naweti nawet ñu nekk ci mbënd mi yëpp yàlla na leen yàlla dimbale Eh, yàlla dimbali leen dimbali leen njabooti bàyyi ñin yal na yàlla yokk seen fan yokk seen ay xéwal seen ay may yal na yàlla yàggal leen fi yàlla may leen wér di naanal xalifa bi yàlla may ko ndam ci liggéeyam bi ak njaboot gi uuf yëpp yàlla may ko ci oyofal ko ko yàlla ubbi ko ci liggéey ci fay ci xilaafaam gi yàlla hubbee ci pays bi yëpp barke Baye yàlla doon leen hubbeeku ci pays bi barke Baye ngi leen di gërëm di sant mm. eh, di wa